loolu de baax na ci waaw bismillah astaghfirullah ala zalik bismillah bismillah wa sallallahu taala bismillah الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهو الذي أحسن تدبيره الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المؤثرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات وصلى وسلم على سيدنا محمد للمعجزات الباهرات الظاهرات البينات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه في الغدوات والروحات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والميقات وبعد mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi nu sante yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu teey ñu tubbe ci xol di leen sant ci taxawaay bi di leen ndokkeel ci bis bi ak yéene ji ak li leen yëkkati seen tànk yi ngeen dox daje fii ngir yàlla ak jëriñu ma ngi ñaan suñu borom rabbul izzati jalla wa ala mu mottali yéene yépp jéggal nu bàkkaar yi wéeral yaram yi lépp lu nu mébét te du mooy du lu nuy wàññi suñu borom sottal ko nu mu gën a rafete dañu fa nu gudd defal nu jàmme àddina ak ju àllaaxira dañu ne waxtaanu mbokk yi ci biir mbokk gi ci biir diine lislaam day dundal xol dunduk xol yi la te póotum bakkan yi la te fàttali la lu ñu fàtte woon ak sulli lu ñu xamul woon ndax àdduna ndégam ci njàqar rek lay mujj ak jubloom ci dëddu rek lay mujj dund lu mu gudd gudd lu mu neex neex ci dee rek lay jëm ci lay mujj bari na ku jub bis di ko yàkkamti te doo ko mottali doo ko àggale ak kuy yàkkamti di xaar ëllëg te du ko fekke doomu aadama nag bu seetee dig bi ci kanamam te xamul fu mu toll ak luy dund gi gaawe bis bu ñëw romb na beneen dal di agsi dana wattandiku mébét yu gudd dana wattandiku xalaati adduna yu bari dana wàññi itam lépp loo xam ne dana indi loru ci moom dama dama nag ñeenti noon yi mu am yàlla boole ko ñoom ci adduna di ko seet di ko nattu jox ko kàttan jox ko xel digal ko tere ko mu ngi seet nu muy mujjeeg ñoom tax jox na ko gànnaay jox ko kàttan jox ko xel wan ko yoon yu mu war a jaar ba mucc ci ñoom waxtu wu sàgganee wala mu yox yoxi wala mu topp bànneex ki nga xam ne mooy gën jaam màggi noon yi doom aadama am bu ël bu ëllëgee rek mu gis lu mu bëggul woon tax na ñu bànneex mooy caabi bépp ñaaw téef mooy noonu bépp rafet rafet te bépp bànneex noonu la dund gi lu gàtt la soxla yi lu bari la shaar bi ne dafa ma qada ahadun minhu minha lubanatahu wala ntaha arabun illa ila arabi adduna kenn du ci mottali sa soxla yépp li nga bëgg lépp doo ko ci def mukk ba mu jeex ndax soxla su daanu rek beneen taxaw damaa dama war a gànnaayoo muñ ak gàttal mébét ak xalaat ëllëg wa fi fuaadika askin zikra axiratin wa dimnaha kulla waqtin aya iskaani sa xalal ci sa xol fàttaliku àllaaxira fàttaliku taraayu bàmmeel fàttaliku sukuraat boo ko saxalee ci sa xol bis bu ne nga gën a ragal yàlla ndax xol day xomaat sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu xomaagee li koy namm mooy jàng alquran fàttaliku dee ak teewe béréb yu ñuy fàttalee yàlla yu mel ni lii nu fi dajale tey nee na képp koo xam ne sa démb ak sa tey ñooyam nekkuloo ci dara képp koo xam ne sa démb a gën sa tey dugg nga ci perte ju gën a màgg nit ki dafa war bis bu ñëw mu gën ca ba woon démb ndax nit ki war nay régler boppam toujours ni commerçant bi régler boppam te seet démb fa mu toll woon ak la mu defoon mu seet tey lu mu def ak fi mu toll ndax tey la gën ci démb ndax def na tey ci góorgóorlu lu mu mësul woon def wala lu mu deful woon démb loola koy xamal ne mu ngi ci dara te mu ngi yokk te lu fanam gën a gudd muy gën a jege yàlla lu fanam gën a gudd muy gën a texe lu fanam gën a gudd muy noppalu ëllëg ak mu jëm di gën a rafet kon suñu borom yu dabbiru lam ramina samaai ila l ardi suma yaaruju ilayhi fi yamin kaana miqdaaruhu alfa sanatin am na xamsina alfa sanatin am alfa sanatin mu ne ma yuutal xikmata man yasha wa man yuutal xikmata faqad utiya xayran kasiran suñu borom benn mooy seetantal mbir yi dogal ko jaarale ko fan ko war a jaarale dogal ko ci jaam ñi te mënuñu ci dara dogal bi neex mu naqari wan na la la nga war a def ak na nga ko war a gise te boo ko defee doo perte boo ko deful perte xam-xam nag ba xam-xam jeex te xam-xam la jiitu jëf moo war a jiitu jëf topp ci li ngay war a jëf na nga ko xam boo ko xamul jëfin wa du rafet tuyaaba ji du toll na mu war a toll alquran nee nag képp koo xam ne xamal nañ la xikam jox nañ ñu yi gën a bari yi mu bari lool ñu ne bil ardi qaamatil ardi wa samawaatu asamaan ak suuf suñu borom a ngi ko taxawal ci yemoo daf koo organisé ba mu jekk adduna bépp lu ci bët mën a dal wala loxo mën koo laal li ko tàmbalee ci lu gën a awaliya mu di suuf ba àgg ci ndox ba àgg ci jaww ba àgg ci safara sàkk mbel yi maanaam minéraux yi sàkk la ko féete kaw te sës ca mu di lii sax li minéraux yi nga xam ne moo gën a suufe ci li suñu borom dund ci li doomu aadama yi gis la ca gën a kawe jege na lii sax lii sax itam la ca gën a kawe buñ ko seetee dem na ba àgg ci daanaka luy dund ndax lii sax ci suuf àgg na ci la ci gën a kawe àgg na ci làmb daj di yëg li nga làmb di xëcc li nga soxla di ko yóotu bu nu weesoo yi sax ndundat yi yi dul nit nekk ci àdduna ndundat yooyu ñoo féete kaw ñoom it ñax mi sax ñoom itam nit ñee leen féete kaw ndundat yooyu itam am na ci yu jege doomu aadama ndax lu ci nekk rek dafa am ay catégorie yoo xam ne day gën a mat ba àgg ci la ca sës nopp jaboot yi am na ci yoo nga xam ne lu ñuy wax baabul jege na nit ba am ci borom xam-xam yi woon ku dem ba ne nit mu ngi jóge ci baabul te ay espèce la yoo xam ne dafa sësaloo tàmbalee ci li gën a suufe di dem ba agsi ci doomu aadama sut nag doomu aadama àgg ci astar yi jóge ci astar yi ba àgg ci malaayika yi ba àgg ci malaayikatul muqarraboon yi nga xam ne ñoo gën a jege suñu borom àgg ci yonante yi suñu borom mi bind sës ci dara féeteetul kaw lu dul suñu borom tabaraka wa taala bi mu organisé nag àdduna bi ci la organisé dundu doomu aadama doomu aadama bu mu ko sàkkalee xel sàkkal ko nopp sàkkal ko bët sàkkal ko loxoog tànk lépp lu des lu manqué ci moom la defal na ko mu mën lépp ba àgg ci texe ba gën a mat mu ngi aju nag ci itteem volontéem rek suñu borom organisé ne adduna bi organisation bu yéeme ci ñi xam dara ñi xam dara buñ tàmbalee wax daañu am ak tekk ak teeylu ak dégg li ñuy wax posé ci seen bopp ay question bu ñu xamee question yooyu mu jëriñ leen bu ñu ko xamul ñu jéem koo xam ci laaj ak gëstu organisation boobu ma wax misaal mi yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam dafa mas a tawat dem wax ko suñ borom suñ borom saafara ko ci lu dul garab mu dellu tawataat dukki ci yàlla mu digal ko benn ñax plante boo xam ne moom la war a fajoo mu dem faju ca wér dellu feebaraat jubal ñax ga dem fajoo ko mu yokk tawat ja mu feebaraat dellu si tawat ja yokk mu dellu si suñu borom jàngat jàmbat ko ko mu dek mu digal ko docteur ba mu dem docteur bi faj ko mu dellu si suñu borom waaw lii mooy lan lii da man jaxase na sama bopp li nga dundee si àdduna bi xaw ma ci dara mu ne ko tawat nga ñëw ma saafara la te joxuma la garab ngir nga xam sama kàttan nga tawataat ñëw ma yebal la ci ñax moo war a buddi fajoo ko ngir nga xam sama xikkam nga tawataat dellu ca ñax ga ñax ga yokk sa feebar ngir ma xam wan la sama sañ-sañ sama kàttan ak sama man-man lu ma neex def dara ajuwul ci dara nga ci fajuwaat jóge ca ñëw ci man ma fekk saafara woon naa la ci lu dul garab ngir nga xam sama kàttan ma saafara la ci ñax gi ngir nga xam sama xikkam nga faju tawat ñëwaat ma yebal la ci docteur bi ngir nga xam ni ma toftalee adduna bi ni ma ko organisé noonu laa bindee léegi teg naa leen ci yoon woo xam ne ci ngeen war a jaar ba agsi ci man ci ngeen war wan leen it yoon bi nga xam ne moom ngeen war a topp ba mu alag leen bu ëllëgee ngeen rëccu te du ngeen ko jàngat kenn ku dul seen bopp li nga xam ne nag mooy mujj lépp mooy yàqin dama adama bi àgg ci ngëm foo xam ne bu demoon ba nga xam ne ñu ngi koy bëmax kàmbu safara rek nekk ci kanamam buñ ko bëmaxee mu daanu ci te ñu koy bëmax dañuy continuer di bëmax rek te duñu taxaw mu wóor ko ne rek yàllaa na ci kanamam te safara wi yàllaa ko sàkk yàllaa koy lakkaloo mu lakk bu ko yàlla lakkaloowul du lakk gis nañ ko ci ibrahima alayhi salaatu wasalaam kàttanu ngëm nag yemewul fenn ndax ngëm àgg na ci ba bu la safara gisee tiit safara wa ca àllaaxira laa wax bu la gisee tiit xam nga ne kooka ragalatul safara yàlla dong la ragal gisatul ne safara dana lakkay gisatul ne ñam dana suural gisul ne naan ndox dana mandil yàlla la gis muy suural di mandil di lakk di texeel di texee di di amal di ñàkkal nga xam ne kon yooyu yépp ay kiiraay la yi suñu borom doxale suñu digg ak moom ngir nattu ñi gëm nu war koo xotti nag ba àgg ci moom ngir suñu gëm mat nu àgg ci li ñuy wax yàqin kiiraay yooyu yépp nag gannaaw moo dox suñu digg ak suñu borom bu nu ci yemee du nu gis yàlla du nu àgg ci moom du nu texe du nu suñu àjjana it dana jafe bala nuy àgg ngëm kon mooy ful maanaam mooy multiplier valeur jaam ci ngëm la doomu aadama yi di rawante ngëm nag dana ko wax na muy yokkoo ak na muy wàññikoo ak na nit di def ba ngëmam di yokk ak na muy def ba muy wàññiku ngëm ci lu nëbbu ak ci lu feeñ day ànd ak doomu aadama bi te du tax li ko moom mukk du ne ko àggal ma taxaw fii di la xaar fu mu dem daf ko fay jiitu ànd ak moom topp ci moom ci ngëm la nit di amee kon valeur ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na amul lenn loo xam ne benn ba dana gën junni lu lu dul ci doomu aadama lu ko waral ngëm ndax bi muy wax naan bu ñu faboon ngëmuk Abu Bakr ni Siddiq teg ci plateau balance fab ngëmuk xeetu yonent bi yépp sallallahu alayhi wa sallam teg ci benn balance ngëmuk Abu Bakr wat leen Abu Bakr dafa àgg ci irtifaaul wasail bi nga xamee ne dañuy waajal xare Tabuk bi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xam ngeen ne xare ñii xare dañuy lekk dañuy naan dañuy aajowoo lu ñu war dañuy aajowoo li ñuy jëfandikoo yépp li la jullit yi ku nekk loo am nga def ko ci yoonu yàlla wi ñu yóbbaloo ko dem xare bi jullit ñi indi li ñu am lépp ku ne di indi la nga mën sidna Usmaan indi lu bari ba sidna Abubakar indee mu ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla akub yonentam sidna Omar indi mu ne ko loo fa bàyyi mu ne ko lu toll ne lii ma indi mu ne ko noonu la seen ngëm yi demee nii seen jëf yi demee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir xamal nu ngëmu ñi sësoon ci moom muy abubakar umar bi mu ne ci biir banu israël dafa amoon waa joo xam ne dafa jàpp nag wi di ko sëf di ko war di ko lottal ba nag wi walbatiku jàll moom ne ko man de kenn binduma ngir lii dañ ma bind ngir rat ak rendi sama ñam sama yàpp ak sama soow di njariñal doomu aadama yi saaba yi ne yaa subhanallahi baqaratun takallamat la ila nag muy wax mu ne ah man de gëm naa loolu man ak maag abubakar ak umar noonu ngëm di fayee safara wi tàkk ba ci safaraw alaxira lay fayee ngëm merom suñu borom tabaraka wa taala abubakar nag ngëmam dafa àgg ci na nga ko seet ci sulxul xudaybiya bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon a dem makka bi mu yàggee madina ñu namm makka ñu namm makka lool tam jóge woon namm kaaba gi namm béréb ya namm lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam fas yéene umra gi dugg makka umra ànd ak saxaaba yi bi ñu dikkee te yéefar yi dogale leen ni leen di ngeen dugg makka ñu dem ba àgg ci ne nañ signé pacte pacte bi niñ ko libellé lépp lépp lépp loo xam ne lii day woyofal nit ki ñu féetale ko jullit ñi lépp luy avantage ñu jox ko waa Makka jullit ñëpp nag mer fa am naqar lool ba umra ji sax seen xel demetu ci fàtte nañ sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abubakar ak Umar bi nga xam ne ñoo ci gënoon di kàngam Aliou dafa nekkoon xaleel Umar ci gën a naw ci jullit ñi muy Aboubacar mu dikk ne waa Aboubacar ndax du noonu noo ci noo ne ci dëgg mu ne ko xakaay ndax du waa màkk yi ñoo ne ci caaxaan mu ne ko xakaay mu ne ko lu tax nag ñi duñu féetale suuf di féetale seen bopp kaw mu ne ko seede naa ne Mouhamed yàllaa ko yónni te du ko réeral te lu mu ko sant lay def te fu mu jaar fa la mu ne ko man itam seede naa loolu dal dem ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ni mu waxee Aboubacar mu ne ko Omar ndax yàlla akub yonentam bu ñu dogoo ci dara Omar am na sañ-sañu di ca opposé sidna Omar tiit bay lox ba ñaq nee na boo bis boobu ba léegi bu ma ko fàttali ko di yokk samay jaamu yàlla di yokk samay sarax di yokk samay balu ndax suñu borom baal ma loolu le Abubakar nag ni mu gëmee loolu mooy bu fekkoonte ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam diisoo na ak ay jëmm la mu wax di lu dëng ci xeli nit ñëpp ñu jàpp ne lii jubul Abubakar moom dana ko gëmee ni nga xam ne noonu la mooy dëgg ndax lu tax suñu borom daf koy daf koo wan sirru jublu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lu mu jublu même bu aaya ñëwee génne ko ci fekk na jamono yi mu cay jublu ba ba aaya ji ñëw loolaa nekkoon dëgg te loolaa doon njëriñal jullit ñi te loolaa doon yoon wi jub Abubakar suñu borom daf koo wan loolu moo tax lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def rek mu d'accord ca bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi gàddaay gi bi mu ne dem na Quds jóge Makka Madina dem ko asamaan ba àgg ba jël sidratul muntaha bi nga xamee ne xaaris xaaris ibnu ibnu umayya ñëw na ne ko waaw yow da ngay dem nga asamaan fekk abubakar bi ñu ko ne waaw yow sawaa ji de ma nga fee ci jàkka ji di wax nee na dem na asamaan dem na itam xut ci guddi gi mu ne da ngeen koy waxal lu mu waxul ñu ne ko ma nga ne ci jàkka ji demal ma nga koy wax lu dikk ñu ne ko waaw gëm nga li mu wax mu ne waaw waaw mu ne jibril day jóge ca sidratul muntaha ak si ci xefinu bët indil ko ay aaya ma gëm ko du ma gëm loolu waa ji ñëw ne Muhammad dem nga asamaan mu ne ko waaw mu ne ko yëkkatil sa tànk mu yëkkati tànk mu ne ko yëkkatil bi ci des te bul teg beneen bi kat mu ne ko déet loolu moom mënuma ko mu ne ko ah tele nga dem nga asamaan mu ne ko déet bul juum musula musula laa wax ne yéeg naa wala rañaan naa dama naan la rañaane nañ ma yéege nañ ma laa la wax waaye musuma la ne man maa yéeg dem asamaan de waa ji jaaxle léegi bala may ak ci mbiru xale yi tamhid bi mooy li may def kon ngëm gannaaw moom rek am solo li nga gëm rek lay jëriñ li nga gëmul moom lu mu rëy rëy mënu laa jëriñ ab yonent lu mu foor foor boo ko gëmul mënu laa ram wàllu yu xutbul xaw lu mu foor foor boo ko gëmul mënu laa jëriñ te taalibe yi lu ñu bari bari jullit yi lu ñu bari bari bari ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ka ci ëpp ngëm rek moo cay gën a xëy ci moom taalibe yi itam lu ñu bari bari bari bari ak lu ñu farlu farlu farlu ka ca gën a gëm sëñ bi rek moo koy gën a jege mooy gën a jëriñu ci moom moom lay njëkk a fàttaliku itam ndagam dana fàtte ngëm nag li koy dolli dinaa ci dellu si di waxtaane xale yi tuuti mooy yi ma daan faral a wax rek li ci jiitu mooy ak dikru wal fikru yi ci tegu sag ci tegu daan ci wax tuuti waaye xale yi yéen ñi nga xam ne yéen yaakaari ëllëg jamono jiitu tollu day li nit ñi naan foofa la raay ba téene yàqu-yàqu yi àgg na ci fi raay bi téene mooy fi nga xam ne saxaar bi du ko weesu ndax lëndëm gu tar rek arab yi naan xad balaxa saylu zuba ndox mi doon yol di dem day àgg na ci kan moo xam ne mënatu ko weesu lépp day daanu ci day sotti ko ci kan mi ñu ne wattasaal xarqu ala ratiqi ñawkat bi doon ñaw mbubb mi mbubb mi dafa toj raat te foo ñaw mu beey foo ñaw war faa dellu siwaat yàqu-yàqu bu matalee noonu lay demee ah illa qalilan nga rek mu des nag lu néew ci jamono bu mel noonu ci chaq la ahmad shawqi doon wax تعب من تعبت بأهله لوما وقبلي دعاة البر قد فئموا الخطابة ولو أني خطبت على جماد فجرت به لينابيع العذابة من waxna ba son waxna guddi waxna bëccëg waaye sama yeddeel yi sama waare bi sama fàttali bi sama yeete bi mel na nit ñi dañoo gumba tëx ñu daanaka jëriñul kenn dara lu ñu néew te man njëkkuma ci te duma ci mujj ba ma daataan ñëw ci àdduna fekkoon naa ñi daan woote jëme ci lu baax bëgg a fekk li nit ñi wax ba sonn waaye nag nit ñi ay catégorie la ñu am ñoo xam ne ni ko sallallahu alayhi wasallam waxe rek mu ne lislaam dafa mel ne xeeti suuf yi suuf soo xam ne tund la ndox ma ca dal barasti ko dem ci xuroo suuf soo xam ne suuf su nooy la soo xam ne dana saxal gàncax waaye du téye ndox mi ak suuf soo xam ne day saxal gàncax téye ndox mi nit ñi root naan sang sor suuf si nga xam ne ndox mi day barastiku mu ne mooy ki nga xam ne bu ñuy wax xelam nga feneen wala li muy wax du dugg xolam daf koy dégg dafa daf koy dégg rek waaye du ko jëriñoo ki nga xam ne dafa mel ne day saxal ñax suuf si saxal ñax te du téye ndox keneen du ca duy si di ca jëriñu waaye moom ci boppam dana jëriñu ndax ñax mi sax na lépp mooy ki nga xam ne dana dégg wax jëriñu ca waaye du ko jot li keneen ki nga xam ne mooy suuf si téye ndox ba noppi saxal ñax mooy ki matal njëriñ mooy ki nga xam ne dana jëriñu jëriñe kon Ahmad Shawqi muy wax loolu seetlu woon na loolu kon képp koo xam ne yaa ngi jublu àdduna li passé guñ ci sa àdduna bariwul génn nga ci fi nga xamee ne kenn du la bindal bàkkaar te say wax neen la benn jaarale woon nañ la yoon wala jaarale wuñ la yoon chance la nga juddoo ci këru diine ndax millier mooy formé nit boo juddoo sa ndey di nitu diine sa baay di nitu diine sa mag di nitu diine sa tàntaak sa najaay ñëpp di nitu diine da ngay dal di yaroo ci diine ji ndax danaa ko wax ci kanam jëf ju nekk dafa am roox te rooga moo am solo rooga mooy mooy def lay am solo bu dee jëf ju bon roo bu bon ga jëf ca am mooy li am solo mooy liy jëf nit nag gannaaw fi mu juddoo ndeyam ak baayam day am ci moom influence ñi ko yar am ko ci ñi koy jàngal daa ko ci am buñ ko amatul léegi it daanañ ko am quartier bi mu dëkk am ko ci dëkk bi am ko ci réew mi am ko ci buñ demee ba kenn yaratul kenn xamleetul kenn yeeteetul milieu bépp yàq kër gi xale bi du roy lu dul lu bon xale bi bis bu nekk li koy yar mooy mbedd mi mbedd mi ñim ciy dajeel mooy ñi yàqu ne moom ñu gën koo yàq film yi muy seetaan ak télévision bi mu gën a dugal ci boppam lu koy yàq di wëlbati xelam jëme ko feneen ci lu koy lor ëllëg te du ko xam mukk fi muy jànge même chose magam ji muy teg bët di ko roy noonu yaayam noonu baayam amatul jot bu bëggee xëy liggéeyi wàcc mi di bëgg a déglu rajo bëgg a noppalu bëgg a añ bëgg a jàng journal bëgg a gontaat wala mu dem muy kuy dem ci grand place yi di bëlooti di fo yeneen i fo xale bi ah innocent la boo xam ne yàq nañ ko yàq goo xam ne yërmande yàlla rek ko mën a dogale mooy buñ ko dugalee ci daara ji te sëriñ bi xam jàng xam jàngale xam nañuy jàngale ak nañuy yare mu sowe bu fekkee ne loolu amul xam ngeen ne nit moom ni ngeen ko xamee du tànn mënul libre libre liberté bu mat ndax du tànn ndeyam ak baayam te fokk ñu jeexital ci moom du tànn réew mi muy juddoo te faw réew mi jeexital ci moom ki juddoo Italie ki juddoo États-Unis ki juddoo Makka ki juddoo Sénégal nuroowuñu dara kenn ku ci nekk la la sos moo bàyyi ci yow la nekk melow nga melow moo la ko jox li gën a bari doo tànn sa sexe boo dee doon góor wala jigéen doo ko tànn doo tànn ñu lay jur doo tànn ban waxtu ban jamono ci àdduna ban siècle ban at ngay ñëw ci àdduna kon liberté bi matul waaye nag fa nga xam ne sa liberté àggu fa kenn topp la fa xaq kenn topp la fa bàkkaar kenn du la fa bindal dara daana ko waxtaane insha allah doomu adama nag mooy melal milieu bi moo koy couleur moo koy melal ni mu mel moo koy bonal moo koy baaxal ba ku ci juddoo wala nga yaroo ci wala nga sax ci amu melo ndey ak baay moom am nañu responsabilité bu day ne ñetti ñañ moom bu keroogee dañuy layoog seen doom yi ci lu ñu sàggan lu ñu leen dëngal bu ñu leen même soxna ak sa doom nga lekk loo ko lu lu lewul nga fàggu sàkku alal ba amee ko amin woo xam ne lu lewul la ba ci bu ko jigéen ji lekkee weenam bi doomam ji muy nàmpal soow ma mu jógee ci lu xaraam da nga ko layoog moom bu yemal xiyaamee te soow mi dana def taasir dana influence dana jeexital ci xolu xale bi ma ne nag kon waajur yi am nañu responsabilité bu rëy nañu jël seen responsabilité kenn terewu leen ko lépp lu ñuy tànn la ñu tey opté mooy jëlal boppam jaar yoon yi wala yoon yi wala yi waaye kenn forcé wul kenn ci lenn kenn ku nekk loo def yaay responsable kon góorgóorlu bu ngeen xasee jógee ci marxala boobu maanaam étape boobu ba nga xam ne nag yéenay seen responsable bu bopp am ngeen fukki at ak juróom-ñett ngeen ñaar fukki at ngeen di góor ngeen di jigéen na ngeen fexee jël relève maanaam na ngeen fexee taxaw seen taxawaay yi baay yi passé ak seen maam ya ngir dox bu jekk bu jaar ci yoon bi mën a continuer di wéy na mu tàmbalee woon ngir lan ngir leer leeru lislaam gi fi newoon mag ñi indi woon ko fi mu bañ a fay ndax leer gi du fay mukk ndax ña ko moom waaye nag dana yëkkati ko jëm asamaan ba duñ ko jot ba ñi nga xam ne góorgóorlu duñ ko jotati nit ki bu jaarul tànki wajuram jaarul tànki sëriñam royul kenn bu leer gi yëkkati ko dootu ko jot mukk te dootu jëriñu te day wéy ci lëndëm di palamtu di palamtu di palamtu booba muy daanu ci kamb safara wala mu daanu ci jaani ñangoor mu màtt ko wala gaynde mu lekk ko kon li ahmad shawqi wax rek fama naylul matalibi bi tamanni walakin tuxadu dunia xilaaba am la nga bëgg day du tàggi ni du toog di mébét rek de du la jox dara mu ne adduna adduna rayante lañ koy amee da ngay xeex ak ñëpp xeex ngeen Victor Hugo di wax ceux qui luttent sont ceux qui luttent sont ceux qui vivent ñii dem ñenn dundul rul ñiy lutter ñiy xeex di bëre ndax adduna noonu la noonu la ko yàlla bindee dañu ne arab yi dañ ne man jaala naa la ku wëndeelu am dara man ci sara ay sara ku am fit da nga am loo denc man xaaba xaaba ku ragal nag da nga sooy da nga perte shaar bi ne axlaq bi sabri an yaxza bi xaajatihi wa mudmin alqara lil abwaabi an yalija axlaq bi sabri an yaxza bi xaajatihi wa mudmin alqara lil abwaabi an yalija borom muñ gu rëy bi yelloo na am li mu bëgg lépp àdduna ak alaxira ki nga xam ne dafa dëkk ci di fëgg bunt yi rek dana mas a ubbi ko mu dugg wa mudminil qara ilil abwaabi an yalija buñ toppee wet googu daan ci sori boo ci lu gënoon am solo lu ñu waroon a wax al muminul xawiyu xayrun min al mumini daif yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ne jullit bi dëgër bi amul njàmbaar bi jëf bi reyante bi sonn bi liggéey moo gën jullit bu yaacaaral bu nooy bi du ñu yem daraja mukk loo tax mu ne woon ci yéen ki gën ca ba ngeen tuubagul duggagul ci lislaam mooy ki gën ba tey ci bu ngeen duggee ci lislaam ndax ñi gën a jàmbaare gën a joxe seen bopp ba mu jeex gën a xeex gën a gëm ñoo gën ba tey bi ñu duggee ci lislaam Abubakar Omar Usmaan Ali yaakam te nag dem sàcc wala nga nax nit wala nga wor am alal julewul lekk fa ëllëg nga layoo ko mu lor la ci àdduna lor la alaxira bu fekkoon ne sa ngëm mat na nga jàpp ci yàlla rek te muñ suñu borom dana lan fa ba xam ne dëgg la ci yow wala déet nag waaye bu ñu demee ba xam ne dëgg la ci yow dana la indi loo xam ne doota soxla sax fenn doota soxla lenn li saayir bi wax di dénk doom bi naa ko kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluuna marra wa hada al athar da nga fexe ba nekk waajoo xam ne bu nit ñëwee sa gannaaw daa ne ah waajaa ngi fii la jaaroon de jeexitam yaa ngi nii mooy koo xam ne na nga na nga fi bàyyi dara ci adduna bi booy dem muy jëriñ jaam ñi loolu ñu yàlla bind bari na ci muy jullit muy yéefar muy yeneen réew moo dem am na fa ñoo xam ne def nañ fa jaloor yoo xam ne fa lañ ko bàyyi duñu leen fàtte mukk bu ñu dee ay jullit ñu di leen ñaanal bu ñu dee ay jullit képp ku sa jëriñu ba saa taxaw njëriñ la fekk si la fa nga xamee ne sa jëf jeex la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit bu deewee lu dul ak sadaqatul jaariya ak yooyu juróom-ñaar yooyu mu wax ne moo lay fekk si lépp de jeex na ba mu def sa ay jëf yoo jëfoon ci la bokk yoo xam ne njëriñ la jullit ñi dañ koy jëriñoo tuyaaba ja di la fekk si fa nga nekk bu fekkee ne amoon nga yéene def ko ngir loolu kon dund gi lu valeureux la dundub adduna lu am maanaa lu am solo la loo xam ne benn yoon rek nga koy am te boo ko ñàkkee dootoo ko amaat te ci dee la yéeme kon way way te dund gi gàtt te amuloo lu dul moom boo ko ñàkkee dootoo ko amaat te xel ba def ci loo xam ne bu ëllëgee doo réccu bàmmeel kat nit ki du fa dundee lu dul li mu jëf te bu jeexee te saa taxawul te kenn xamagul kañ la saa di taxaw dootu añ dootu reer dootu ndekki buñ ko saraxul wala ñu wàcceel ko kaamil wala ñu ñaanal ko dara te loolu xamul dana ko amal ndax bu fekkee ne yarul doomam yarul islam ba nga xam ne xelam dana dem ci moom mu di ko ñaanal wala mu di ko wàcceel ay kaamil kenn du ko defal dara foofu moom day jeexlu rek taxaw kon am jamaa jaayee ko xandoor fa la perte adduna mën a yem ñu ko wees sëñ Tuubaa nag gisoon na jamono ji loolu fàttali ko suñu Abdou Karim Touré daan waxee ku mel ne kooku kama xaalam gis naa loo xam ne neexuma liñ ma fi mayoon ci adduna ma war koo dund dama ko fi bàyyi ñu ne ko li nga gis moom lan la nan la demee mu ne niroog woy dëng yi fujjaar yi kàccoor yi niroog ñoom yëpp di leen gunge ba dugg safara te li ma ci gën a métti mooy gis naa ci ñu ma foogul woon adduna bi nag li mu doy doy waar it rek jullit bi moom warula naagu tax sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tazaalu taifatun min ummati waasirina ala alxaq laa yadurruhum muxaalafatu man xaalafahum sama xeet wi du dem mukk di ci am kuréel boo xam ne dañuy nekk ci dëgg rek nit ñi jëm feneen ñëpp du leen lor ndax dara du leen mën a tàggaleeg seen ngëm gi ñooñu yàlla na suñu borom boole tabaraka wa taala adduna nag ci ngay fàggoo alaxira laatan sa nasabak min dunia wa ahsin kama ahsana ilayka kon adduna waxuñu la nga bàyyi adduna bi du caa jëri nga bañ a góorgóorlu bañ a liggéey bañ a def dara déedéet loola sore naag bàyyi adduna laysa minna man taraka duniyaahu li axiratihi bokkul ci ñun jullit ñi képp koo xam ne bàyyi nga sa adduna ngir alaxira déedéet dañoo war a liggéey adduna ngir nam ci alaxira li saxaaba yi doon def booy liggéey bul liggéey ngir yow rek na nga liggéey ngir jullit ñëpp boo fi jógee wacc fi loo xam ne nit ñi daañu ko jëriñoo ndax alxalqu iyalullahi wa ahabuhum ilallahi anfa'uhum li iyalihi du mbindeef yëpp jullit ak yéefar mbindeef yëpp njabootu yàlla lañu te yàlla nee na ki ma gënal ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci sama njaboot gi mooy nit ñi kon boo yox yoxee doo jëriñ kenn dara doo fi bàyyi lu jëriñ nit ñi yow ci sa bopp sax nga dem ba yaafus ba dañ lay yenu dina yóbbaale bu keroogee nga ñàkk bu nga nga bokk ci faqir yi suñ tubaab ne xasbuka min tawakkulin allah tara mujree risqika siwa rabbil wara wakiilu doy na ci rek nga xam ne yàlla rek la mën a wërsëgal waaye nag na nga sàkku sabab yi ndax suñu borom dafa toftale sabab yi ci li muy sabab li mu li muy indi kon soo bëggee am liggéeyal soo bëggee texe jaamul yàlla soo ragalee safara wattandikul mooy lépp daf ko li ñuy wax sabab ak musabab maanaam maanaam cause ak effet suñu borom daf koo lii daf koo taqale ba nga xam ne ci adduna noonu la liggéeyee adduna ba ñu jaam ñi ñu mën a indi justice seen diggante bu fekkoon ci rek kiiraay yooyu muy wax amul ci adduna nit ki wax ba jot la rek talaata la nga ne ko yow looy def nii mu ne la yàllaa ko dogal bu demee tribunal it ne leen yàllaa ko dogal ñu bàyyi waaye nag sabab yooyu loola tax suñu borom def ko fi ngir nit adduna mën a nit ñi mën a am jàmm mën a liggéey ñu xàmmee ñu gëmal ñu gëmul xàmmee ñi yaafus ak ñi jàmbaare xàmmee ñi am yéene ju baax ak ñi ko amul waaye nag nga sabab lu adduna ba jekk jekkal ñeneen texe texeel ñeneen jëriñu jëriñal ñeneen waaye nag faggu boobu ngay faggu adduna bu mu lor sa diine bu mu lor sa àllaaxira li nga fexe ba ñoŋal sa sa der wii ndax jullit waru la doyadil boppam ndax nee ñu boo ñàkkee nga am diine dem ci buntu ku am di fa toroxlu sa ñaari ceeri diine dem na kon loolu dara jëru ko kon jullit bi di wax istismar maanaam produire daf ko war a def istismar ngir mu jëriñu jëriñe ci liggéey bi ngay mën a leere ki xiif ci nga koy mën a joxe lu lekk lu mu lekk te nee nañu wa luqmatun tasuddu batna jaa'i afdalu min binaa'i alfi jaami'a benn ci bu ñam boo jox ku xiif ba lot moo ëpp tuyaaba tabax junni juma xam naa li góor gu doon wax naan buñ ne janax ji mu ngi toll ne nag janax bi si tolluwul ne nag it réy na lool lañ ci jublu kon buñ ne benn tibu ñam boo xam ne bu law la nga jox ku xiif mu lekk ko moo gën tabax junni juma bu gënul tabax junni juma yi gën na lu bari ndax juma xuma la juma waaye jàkka sallallahu alayhi wasallam nee na ku tabax jàkka ju toll ne kaasum picc moomu ñuy wax xapaat mooy printemps ñu tabaxal la kër ca àjjana kër yoo àjjana ma ne su ko fee waxtaane ndax dara ci li nga xamoon ci adduna yuréewu la la ca àllaaxira waxuma la ak la ca àjjana bu nee néeg bul xiyaas néegu àjjana mukk ni suñu néeg yi suñ ne fruit bul xalaat benn fruit mu ñu roog fruit àjjana dañ ko tudd rek fruit ngir mu xam ne nii la demee naka noonu ya ngay war buñ nee fas ndegam addunaa dox ba fas wàññ xaymaam wàññeeku ba avion di dem fu fas mënul la dem ndegam addunaa dem ba àgg foofu rawatina nag alaxira rawatina àjjana kon àjjana xéewalam mënees ko waxtaanee ci nit ñi ci adduna ndax doo am baat yoo ko waxee bañ mën koo xam na mu demee waaye mel na melo woo xam ne teraanga joo xam ne ak nguur goo xam ne ak bànneex boo xam ne kenn mënu koo xiyaas xajul ci xel xel mënu koo xam kon sallallahu alayhi wa sallam bim ne ki gënal yàlla ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi ba nga xam ne yéefar sax lu mu weddi weddi weddi yàlla bu baree njëriñ ci nit ñi suñu borom du ko lakk ndax dafa niroog suñu borom ci benn jikkoom mooy tabe mën nañ koo mbugal de wala ñu yóbbu ko feneen waaye du dugg safara suñ tubaab ne wa afdalul amali ma ta'addadat lahu fawaidu kay min ko xam nga kat xat xat sabat an jahli zi jahlin ila axirihi jëf ji gën ci jëf yi mooy ji ëpp njëriñ ci nit ñi jëf ji nga jëf te muy jëriñ ñeneen mu misaale ko moo xam xam-xam boo xam la di ci jëriñ nit ñi wala alal joo am di ci dimbali nit ñi wala sa kattan wala sa daraja nga di ci xettal nit ñi wala lu mu doon rek jëriñ jaamu yàlla gi nga xam ne mooy gi gën a màgg ci jaamu yàlla yi mooy gi nga xam ne moo gën a jëriñ nit ñi gi ci topp soog di loo saxal nga xam ne bis bu ne nga def ko mooy ndax day setal xol mu mel ne béréb boo xam ne bis bu ne nga bale ko bis bu ne nga bale ko doo ko bàyyi ñaari fan doo ko bàyyi ñetti fan day dëkkee set bu dee xol nag day mujj sax ci set gi dootu am gàkk dootu tiim wa maa yusfat fi lqalbi wa huwa maa udim minhu wa in qulli la qaalahu alxakim beneen bi ci topp mooy lu naqari sa bakkan bokk na ci jëf yi gën yow da ngaa fuqale woor moo ëpp ci yow tuyaaba julli moo ëpp ci yow lépp li mu doon ndax da ngay taraxal sa bakkan ndax taraxal seytaane ndax sa bakkan mooy sa noon bi gën a màgg ci sa noon yi kon loo ko toroxale rek loola gën a neex yàlla loola moo ëpp tuyaaba itam kon liggéey am dara bi ca wut yàlla am na solo ndax al yadul ulya xayru min al yadi sufla yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax loxo bi féete kaw faw moo gën bi féete suuf yoo xam ne lu dul koo xam ne yàlla daf laa nattoo nga ñàkk kàttan boo mën a liggéeyee wala am nga kàttan waaye wër li wër amuloo dara yàlla gàttal sa wërsëg laaj ci boppam dañ koo araamal dañ koo araamal ndax yi ci nekk lu tax ñu fu ñu ko daganale li darurati day day day guddi day bari waaye am li tax ñu daganal ko daruri yu la waxuma nag sëriñ buy laaj taalibeem ndax daf ko bu fekkee ne sëriñ bu mat sëriñ muy laaj taalibeem njëriñal taalib bi la ciy jublu waaye bu ko taalibi joxee ak bu ko joxul loolu la yemale képp moom li ko ittee rek na taalibi bi texe sëriñ bi wax na ko ba tey dana tëb lu bari ndax kii bi dina gudd kon ba lépp waaye waxtu woo xamee ne ragal nga tarxiis sa tànk bii rëcc sa ndong di dal ci suuf na nga teylu ci mbiri adduna teylu ci mbiri diine am na benn shaayir bu ne woon ma axsana ad-diina wa dunya ida ijtamaa la baraka allahu fi dunya bila diine aka rafet nit ki am adduna am diine waaye adduna joo xam ne diine andu ca yàlla defu ca benn barke la barakallahu fi dunia bila diine am na lu ci nekk ci sama xel ci xam ne wax jooju mën na juumloo ñu bari mën na loro itam ci ku ko déggul ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne addunia mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa alimu mutaallim adduna lu ñu rëbb la lépp lu ci li ci nekk ci adduna yëpp lu ñu rëbb la lu dul turu yàlla ak kuy wut xam-xam ak ku xam lan mooy dunya nag adduna lan mooy la ñuy wax adduna ndax adduna lu caagi nii nu fi nekk rek di liggéey di di sonn di feebar di wér di lekk di naan di julli di woor di aji di def yooyu yëpp déedéet adduna ci boppam mënuloo ko bàyyi te yaa ngi ci biir mënuloo koo génn kon du adduna gi liñ ci jublu mooy yi nga ci xam ne mooy dox sa digg ak yàlla yi nga ci xam ne mooy dimbali sa jikko yi nga xam ne mooy jikko yi nga xam ne moo lay soril yàlla moo lay soral yonent bi moo lay soril sëñ bi nga yaakaar jikko yooyu yéen ñëpp xam ngeen ko yooyu di ci melaw doomu aadama du lu yem ci adduna rek ndax nit ki bu añaanee alali adduna la añaane nit wala am amoo adduna ndax àllaaxira kenn añaane wu ko kenn nit ko boo xamee ne moo la ko ëppale wala moo la gën da nga koy bëgg te da nga koy liggéeyal ndax bëgg am tuyaaba nga bañ kenn nit ki nga bañ am na lu tax benn seq ngeen dara wala jël na sa dara yooyu yëpp mbiri adduna la tayeel mbiri adduna la julli gi jot nga tayyi wala koor gi jot nga sàkk lay te yàlla moom xam na boo mënee boo mënul nga bañ a woor ne dama feebar yooyu yëpp mooy lépp loo xam ne dana dox diggante jaam bi ak boromam adduna la adduna jooju nag la ñu rëbb ndax day tee nit ki dem jëm ci yàlla daanu ci àgg soobee yàlla léegi moo tax nga war a seetlu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn bis way ñàkk ñi dañoo mës a yebal délégation ci moom tànn ay nit ne leen ñoom ñi am ñi ñu am ñi ñoo yónnee ñu ñàkk ñi ñoo yónnee woon ci yonent waxtaan nañ ko ci ay waxtaani waxtaan ne leen bu ngeen demee ne leen Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu yàlla defal wërsëg wu yaatu day yóbbu nañu li gën ci adduna bi ak li gën ci àllaaxira ndax bu ñëwee dañuy jihaari ñooy waajal xare bi bu ñëwee dañuy tabax jàkka ñoo cay def la ëpp bu ñëwee dañuy jihaad dem ci jihaad ñooy jënd gànnaay yi ëpp ak fas warwaay yi ëpp te bu ñuy julli dañuy julli na ñun bu ñuy war dañuy war bu ñuy aji ñu aji na ñun kon ñoom dem nañu wëcc nu raw nañu nu buñ demee wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu dañu leen yéen ñi nga xam ne way ñàkk yi ñëw leen yónni dama leen bëgg a jox seen tontu ngeen joxe leen ko bu ngeen demee ne leen way am ñi ngëneel yàlla yàlla leen def loolu ngëneel moo leen ko jox waaye yéen su am na li leen ngëneel lu ngeen am lu way ñàkk ñu amul loola moo di waxtu woo xamee ne saa taxaw na way ñàkk ñi muñ daañu dugg àjjana juróom-ñaar fukki at way woomal yi nekk ci ñu di leen xisaab di régler seeni affaire ñaareel bi waxtu woo xamee ne bokk nañu dugg àjjana te tolloo daraja ki ñàkk ki ki am buy seenu kër ki ñàkk day teen di leen seen ni ñuy seen biddew yi ci guddi ñetteel bi bu ñu bokkee ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ku am ki dana ko wax nangam yoon lu dem ci juróom fukki yoon soog a tolloo leeg benn yoon di ko ki ñàkk ci wax ku ñàkk ki ñu wax nag mooy bokk ci al fuqara u sabiruna ñi ñàkk te muñ ñàkk te muñ nag lu jafe la ndax ñu bari daañu ko wax te ñu xam na mu demee ku ñàkk ki bu muñee du ñee ki am ñàkk gi du ko naqari da xam ne yàlla ko def te xëy na boo demee li gën ci moom la moo tax bu amoon dana bew wala bu amoon leneen dana ko gàllankoor kon suñu borom moom na xam jaam bi la mu ko tànnal mooy li gën ci moom mu bëgg itam ci ne suñu borom wooye falal na ma xisaab ëllëg ndax nit ki fiftin bu dugg loxoom ëllëg dana wax na mu ko amee dana wax na mu génne ci loxoom na mu ko sànke lu mu lekk ci biiram noonu daan dem ci loolu bu fekkee ne noonu la ko gisee kañee itam suñu borom dara tewu ko ñàkk naa tey mën naa am ëllëg te bu ma joxoon ma am itam tey mën naa am ba noppi am am bi alal ma wala ëllëg ma ñàkk te kon duma ko mën a muñ ndax tàmm naa am am ba pare yooyu yëpp bu fekkee ne ki nga xam ne moo ñàkk te muñ melo yooyu lay am ak xalaat yooyu la dañ kooku dañ ne al faqiru sabir xayru al ghaniyu shakir xayru min al faqiri sabir waaye al faqiru al faqiru shakir xayru min huma maan masalan ki ñàkk te muñ ki am te sant ko ëpp daraja yowmal xiyaam waaye moom darajaam lu kawee kawee la dégg ngeen fi mu gënee moom it ki am te sant waaye am te sant moo fi gën a jafe am te sant buñ ko waxee charte yi ñu bari daañu découragé ndax boo amee lu yàgg yàgg bul déclassé damaa gën ki bul xeeb ka nga yemaloon démb bul seenu mu di la demal di leen liggéey di leen defal dara ndax li nga am na nga ci génne xàq yàlla xàq yàlla asaka ji mooy jiitu bu asaka ji passé itam bul seetaan ku lot nga mën koo dimbali te dimbali woo ko boo ko defee sant loo yàlla ñaareel bi itam alal ji ci boppam nga sant ci yàlla mooy li ci war lépp gannaaw ba nga ko génnee ba noppi na nga am yërmande yi képp koo xam ne kii lot na nga dimbali ko ca kem la nga mën bu ko defee loolu nga xam nag ndax muñ ci boppam dafa am fii ak an ak ala nit gën a muñ ci lu tiis lu ko dal nit gën a muñ ci am lu bari lool te bewul te changé wul te déclassé wul te xeebul beneen nawleem wala gisewul boppam ne moo gën kii kooku mooy fii moo gën a jafe ci muñ ak muñ muñ ala muñ an muñ fii muñ an mooy xiif nga trop waaye ñoom lii am lënt la xamuloo lew na wala lewul sa xiif boobu nga muñaale ko ci ba bañ a lekk ci ñam mi muñ an mooy loolu ñooñu ñëpp benn bu ci nekk ak ay tuyaabam dañ koy lim ay téeméeri téeméer da ngeen ko gis ci masaalik bi bu ngeen ko seetee léegi nag ñu ne alxaniyu shaakir xayrun min al faqir sabir am te sant sant la ñu wax am te sant moo gën sax ñàkk te muñ waaye ki ñàkk ba noppi sant nag moo gën ñoom ñaar ñëpp ñàkk ba noppi sant gis ne ñàkk gi xéewalug yàlla la mën naa am ndax yàlla rek xam man xamuma mën naa am li mu ma tegee lii damay xaritam ndax suñu borom xaritam daf koy faral di nattu moom lay gën a nattu boo ko gisee noonu da nga nekk shakir jëmm ji kon bu nekkee ci adduna te xam dana ci génn ëllëg day demi ci béréb boo xam ne lam jëfoon rekk la fay fekk te béréb boobu béréb bu nu ump la la fay dox lépp xamuñu ca lenn waaye béréb la boo xam ne bérébu bérébu tiitaange la bu dala di xel la béréb bu mat a waajal la képp koo xam ne fàtte nga ko nekk ci sa adduna rek noor bu ëllëgee da nga am mbett képp koo xam ne yaa ngi koy fàttaliku sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom du boole ñaari ragal mukk ci nit kon bu fekkee ne yaa ngi ragal li ci sa kanam ëllëg bu yomal xiyaamee suñu borom du la wan boole ca ñay ragal da ngay wóolu am yaqin ne yow da ngay mucc kon nag ragal yàlla fii ragal safara ragal laaj ko bàmmeel ragal xisaab ba ragal jéggi siraat ragal sukuraat ak ay métitam waxtaan yi nan bërki démb ci gede sukuraat ni muy mel ak néew bi mandarga yi ñuy gis ci moom ba mën a am ci moom yaakaar ne ku texe la ak mandarga yi ñuy mën a gis ci moom ba di farlu ci ñaanal ko lool ndax tiit ci mbiram ruu gi na muy génne bu génnee na muy toll ak na muy mel fa muy jaar ak ña muy dajeel ak fa muy bët ak la muy jëfe ak fa mu nekk affaire bar sax ak yooyu yëpp waxtaan nañ ko léegi dañ koy romb kon bu ñu xamee ne rek ëllëg li ñuy xaar foofa lu doy waar la te xamuñu lu mu doon daañu ci bàyyi xel dara nag gannaaw seytaane ak bakkan dara nag taxul nu woyafal ko ba duñ ko xalaat lu dul seen ko fu sori rek nit ko du seen mukk ne bu subaa mu dee wala tey jii bu ngoonee mu dee du ko seen mukk mukk foofu la ko seytaane ma ne te mu ne day dee moom waxtu wu ne mën na ñëw waxtu wu ne laa taatiku illa baxtatan li saa dañu waxee ne saa noonu la itam almawtu yaati baxtatan sëñ tubaab ko wax al ci nahitu qada alhaji almawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu da chawaxilin muxtarima dee day bett faw faw faw rek bari na bu ne cërit waa nit koo xam ne mu ngi amoon ay mébét yu bari ak ay naal ay plan yu bari yoo xam ne bëgg na ko exécuter almawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu da chawaxilin muxtarima kon wattandiku tere yi topp ndigal yi mooy yoonu mucc lam tilaaqi muslihan fal taktafi bima bihi nassa xiyaaru salaf fekkee ne yàlla may nga la chance nga dajeeg muslih muslih mooy kan mooy jëmm ji nga xam ne suñu borom daf koo tànn ca azal ba mu bindagul jaam ñi ndax suñu borom ba mu bindee roo yi te bindagul jaam ñi la raay ñaari loxoom ci gannaawu aadama loxo bi ñu mën a wax ne ndeyjoor suñu borom ñaari loxoom ñëpp ndeyjoor la. waaye bu ñu dee wax ak doomu aadama waxi doomu aadama la ñuy wax ak moom loxo bii fees ak ay ruu mu ne ñii de àjjana laa leen jëme li ci def sama yoon newu ci yëkkati loxo bii na ruu yi yëpp safara leen jëm sama yoon newu ci faale ma la lan la suñu borom tooñul kenn nit ñee tooñ seen bopp lu mu defee noonu nan lu tax mu def loolu suñu borom nekkul ci temps amul jamono nekkul ci espace nekkul ci bërëb nekkul ci benn jamono démb ak tey ak ëllëg ñoo yem ci moom amul amul kon gis na jaam ñi ba mu leen bindagul gisoon na ba mu gisoon na ni mu leen bindee ba mu leen bindee ba kenn ku ne ko yoon wa ngay jaar ba mu xam fa nga jëm mu dogal nag dogal bi ba muy yëkkati ruu yi gis na fekk na xamoon na kenn ku nekk ba gis la na nga jëfee ci sa àdduna boo fi ñëwee bi nga fay jóge ak ca la ngay mujjee lépp kon li ñuy wax alqada wala qadar amul dara lu mën a contrarier dogal suñu borom ndax lu passé lu mu gis mënu pare la ba noppi ndax suñu borom nekkul ci temps nekkul ci benn jamono kon amul lu ñëwagul wala dara di xew muy changé ndax xamu ko woon déedéet loolu mënul nekk suñu borom lépp a teewandoo fi moom ma ni kon in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bi ma bihi nassa xiyaaru salafi muslih mooy kuy yëwénal mbir yi sëriñ ñett la sëriñ bi lay jàngal sa diine di la ko leeralal di la xàmmal li araam ak li dagan di la wax lii xew yowmal qiyaam ak jëf ju nekk la ko suñu borom di fayee nekk waay yi nekkin wu ci nekk ak lay waral jaam ba nekkee ca noonu ñu jóge ci dem ci cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya dafay xam alquran xam hadis xam taqallubaati zamani xam mumaay astar yi xam ni muy jeexitale ci suuf xam yàqu-yàqu yi fu muy jóge ak fu muy jaar ak na muy yàqi nit mën ko koo fegal mën koo digal na muy def ba mucc ci kooku mooy cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya day suivre taalibe bi ni médecin bi di suivre malade bi kooku mooy cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya moo ci topp cheikhu tarqiya mooy ko àgg ca àgguwaay ba mooy mus al muslihul kabir dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne mooy yéwénal mbirum jaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ku demee ni sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ak ñeneen ñi kooku itam ñu wekku ci moom ay catégorie la ñuy doon bokkuñu yem am na ci catégorie yoo xam ne dañoo sampoon seen gétt ca safara mu ñëw guddi gétt bi war leen a yóbbu àjjana dong li ci diggante bi nag fi ñuy seen sukuraat seen trayu bàmmeel seen jéggi siraat ak yépp garanti wu ko waaye garanti lu leen du ngeen dëgg safara te da ngeen dem àjjana loolu moo tax nga daal nga xam ne góorgóorlu moo baax ndax ki nga topp da nga koy roy ci jikko daan ko danañ ci àgg ci kanam bu fekkente ne même temps bi may nañu ko ndax roox yi ñooy am lu ñu niroo te roo yi roo bu nekk dañuy xëccante ya niroo dañuy xëccante roo ya bokk ya niroo dañuy xëccante kon taalibi bi gën a roy sëñ bi gën a niroo moom ci ay jikko kooka la rooxu sëñ bi njëkk a xëcc te xam ngeen ne ruu daan ci àgg ci kanam bu fekkee ne jamono bi may nañu ko ruu na muy fóote moroomam am na mu koy setale moo xam ruu gu nekk ci barsax la wala ruu gu nekk ci adduna ji ak ruu influence am moom ci boppam ci yeneen ruu ya muy dajeel foofa ak ruu yi ma wax yu nekk ci adduna fii ñaareelu catégorie yi kii suñu borom bi doon ne ko ci àjjana waaye bala caa dem dana sonn dana am jaar ay jaar jaar jaar jaar yooyu yëpp sëriñ ku xamul nag tasawuf mbirum buñ dee wax ndax am na ñu bari ñu naan te ay jàngkat lañu waaye nag jàng dafa am fu mu yem am na loo xam am loo xamul ku xamul tasawuf daw du mën a dugg sa bopp ñu naan kenn mënul a jëriñ kenn dara loolu dara gën a ko dig réer nit mënul jëriñ moroomam réer mënu koo weesu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu jëlee ci moom ci lu xam ne dàq na loolu kenn xamul nu mu toll Uwaysul Qarani Uways ibn Amir al-Qarani boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñëwul woon ndax jébbalu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yi tuub ndax yaayam dafa màggatoon wérul mu nekk si di ko toppatoo waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon nag yëpp ci baatin Uwaysul Qarani ni mel ak fi mu àgg ci yàlla toujours muy laaj ndax Uwaysul Qarani yi ñëwul ñu ne ko kooku day ñëwul dafa nekk di toppatoo yaayam mu ne Seydina Omar Uways ibnu Amir waxtu woo ko gisee na nga ko tàllal say loxo ñaan ko mu ñaanal la njëggal suñu borom ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko def te Uwaysul Qarni bokkul ci saaba yi ci taabi'oona yi la bokk bu ko Seydina Omar gisee noonu xisa bi dafa gudd du ma ko àggale waaye fan ku ne jaam mënul morom ma dara da ngaa mënul kenn dara xamuloo itam ku la wóor ne mënal na kenn dara suñ si la mu waxul loolu dafa ne wajhu lazi yuhibbuni yabyaddu yawma wujuhu su'adaa tabyaddu képp ku ma sopp bis ba nga xamee ne ñi texe rek la seen xar kanam di leer képp ku ma sopp rek sa xar kanam dana leer naññ. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al mar'u ma'a man ahabba ndegam sopp ni rek moo lay jëriñ ci moom njëriñ loo xam ne xel mënu koo xalaat rawatina liggéeyal ko rawatina gëm ko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne sàmm bi dafa ñëw ne ko waaw kañ la saa di taxaw mu ne ko loo ko xaroo ba di laaj kañ lay taxaw. mu ne ko ah du julli gu bari du koor gu bari du sarax su bari waaye nag sopp dama sopp yàlla ak yonentam xulóob man la muy bon ay ba mu àggal tuuti rek sa bañ a guddal bañ a yàggal jërëjëf naag koy waaw mu ne kon sàmm boobu bu ñëwee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam kañ la saa di taxaw mu ne ko ana loo ko xaroo ba di ko laaj mu ne ko ah du julli gu bari de du koor gu bari du sarax su bari du aj gu bari waaye nag bëgg naa yàlla ak yonente bi mu ne ko almar'u ma aman ahabba ki nga bëgg rek yàlla boole nga la ak moom yéene bokk nee saxaaba yi keroog mbëg mi ñu bëgg mësuñu koo bëgg ndax gannaaw almar'u ma aman ahabba nit ki ku mu sopp la ko yàlla booleel yomal xiyaam te ñoom sopp nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba fa sopp di yem suñu borom defal na leen lu rëy sëñ Tuubaa yemul ci ne wajhu allazi yuhibbuni yabyaddu yawma wujuhu su'adaa tabyaddu dafa ne shaqaa man lam yahwani qad kutiba wa kawni addal xadima wajaba képp koo xam ne soppuloo ma suñ borom bind na sa texee di kon ku ko sopp war a sant yàlla li ko suñ borom defal nag lu jafe la moo di cofeel ndax ku mën a xettali sa taalibe yëpp da ngay fexe ba def ci ñoom cofeel goo xam ne buñ la tuddee dootuñu am sago foofu la sopp mën a yem leen tilaq muslim fa taktafi bi ma bi na sa xiyaaru salaf bu fekkee ne dem nga nag ba gis loolu dul ay jàngkat kese ñu maandu bari xam-xam ragal yàlla di ko jaamu na nga fexe ba xam jàng si ñoom xam sa diine boo gisul muslix muslix nag mooy kan mooy ki nga xam ne dafa mel ne géej gi xamul mbalit lu mbalit bari bari boo ko ca tuuree mu réer kooku mooy muslix nit ki jëfama koy àggale ca àgguwaay ba te jëf sellal mooy ruux gi sellal mooy ruuxu jëf ni ma ko waxee rek jëf ju ne dafa am ruux ruuga ci boppam moom la ñuy peese ëllëg ruuga ci boppam mooy leer mooy am leer gu rëy mooy am leer gu ndaw jëf ja ci boppam jëf doomu aadama dina ko jëf malaayika yi jàppoo ko mu gën a leer jant bi ñu bët juróom ñaari asamaan asamaan suñu romb am na malaayka mu fa taxaw moo xam ne seet jëf yi rek mooy liggéeyam ki jëf jëf ji ay jikkoom la ñuy seet ndax jikko ju ci nekk day marqué ci jëf ji bu nit ki añaanee kañaan gi mu añaan day marqué ci jëf ji malaayka ma delloo ko boroom bu fekkee ne dafa rëy noonu bu bëggee àdduna lool noonu bu fekkente ne fenkat la noonu bu fekkente ne itam dafa tàyyeel ba du jaamu yàlla jikko yu yi ban yépp jikko ju ci nekk day tàmpe ci jëfu nit ki day wàññi dooley ruux gi moo tax am ci jëf yoo xam ne bu ñu leen sellalee ni ki julli genn julli rek bu ñu nangu ku ko mës a julli ku ko mës a julli ci sa dund da nga mucc ndax lii tax ruuxu jëf ji mat mooy sellal bu nit deexee nga di ko sarxal ñu naan nañ seet li mu bëggoon li mu gënoon a bëgg ñu di ko sarxal ñu ne dafa bëggoon guro ñu di ko sarxal guro wala dafa bëggoon suukar ñu di ko sarxal wala dafa bëggoon lu mu mën a doon rek li nga sarxal li nga sarxe du caa génne loolee nga sarxe guro googu moom la ñuy koy yóbbu di ko ko jox déedéet rooxo yéene ji nga am ba dindi ci sa alal jënd ci guro sarxe ko ngir mu jëriñ diw jëf jooju moo am ruu boo xam ne ruu googu mooy remplacer neexaayu mu guro neexee woon moom waaye am na ba tey ak gestu bu muy gestu bërëb bi ne ndax nit ni ko suñu borom bindee mu bëgg boppam ruu gi toujours day gestu bàmmeel bi ba nga xam ne gestu bi muy gestu bàmmeel bi daf ci bu dee waaye yàlla daf ciy wàcc ay leer ceeñeer yoo xam ne day jógee ca ruu ga nekk ci bàmmeel bi ba nga xam ne wala yu ñu ci bari dañuy wëndeelu di dem ci jaww ji waaye boo dee ziare seen bàmmeel waxtu waxtu wu fa nekkul itam leer googu mu nga fa te leer googu mooy yóbbaale sa jëf di ko seede yóbbal xiyaam wala yu di ko seede moo tax ziare am solo li nga xam ne noonu la ruu di defee influence ci beneen ruu moo waral ziare nit ki nga xam ne nit ku ñu yaakaar ngënee la ñoom muy nitu diine noonu ruuxam noonu lay influencer sa ruu dañu wax ne ñetti téeméeri siddiit ak fukk ak ñett nekk na ci doomu aadama siddiit bii siddiit bu ci nekk benn mu taxawee taxawaayu ayib bu nekk ci nit ki wala qualité bu nekk ci nit ki nit ki dana am ayib yoo xam ne lu ci tey siddiit gi nga xam ne mooy siddiitu ayib gi di nelaw ndax milieu bi nekk permettrewul siddiit gi yeewu mu génn bis daje koo xam ne am na siddiit googa siddiit ga yeewu topp ko mu topp siddiit ga di ko jëfandikoo ba mu romb ko rek mu dal di yee siddiit gi woon ci moom mu dal di jëf jëf ji mu doon jëf ni ki tey nit koo xam ne fokkat la dafa mën a fo wala mu mën a way wayu caaxaan wala mu mën loo xam ne lii day dox diggante nit ki ak yàlla di ko fàttaloo boromam waxtu julli dana jot xelam du ci dem keneen ki nga xam ne amoon na siddiitu loolu waaye mësu la yeewu ndax milieu yi mu nekk ak nit ñi yeneen ruu yu sell yi nga xam ne ñoom lay jaxasool ak fi nga xam ne fi la yaroog ñi muy àndal dal di bis kenn kooku romb ko jëfandikoo loolu rek si digg yow mu dal di bëgg loolu ba du ko mën a muñ dal di say dem loolu lay xamal ne kon ziyaara nit ku baax ak dem ci béréb yu baax am na njëriñ lool gannaaw dañuy jaxase rek di def lu baax di def lu bon nañ fexe ba te lu baax li toujours dañu koy bindal fukki tuyaaba lu bon li benn yoon rek ndax ñaari malaayka yi nekk ci mbagg doomu aadama bi nekk ci ndeyjoor bi mooy yilif bi ne ci càmmoñ bi bu nit ki defee lu dul noonu bi ne ci ndeyjoor bi def naan ko bu ko bindagul xaaral ndax dana ko tuub fekk déwén bu ko tuubee ñu baal ko ko bu ko tuubul ba mu wéy wala mu dolli ci leneen mu ne ko bindal mu bind waaye ki nga xam ne moom benn la koy bind nag ki nga xam ne moo ne ci ndeyjoor bi moom benn boo def ci saasi la koy bind bala ngay def leneen lu ko faral te bu koy bind benn bi fukk la koy def kon suñu borom jàppale lal nañu lool yoonu texe yu mu yaatu ñu ne lana gën a màgg ci jaamu yàlla waxoon nañu xeet yooyu waaye juy bokku ci ndax julli fi ñu ko joxe yonente bi salaa sallam sayyidina jibril sax mënu fa àgg dafa ca xadiratu quds fi nga xam ne leer yu foor yi nga xam ne lépp mbindeef bu fa àgg lu sa leer foor foor ngay lakk ca leer yooyu la sayyidina jibril dafa dem ne law taqaddamtum ma an mulatan lahtaraktu bil anwaari sidratul muntaha bindeef mu yàlla bind mësu koo weesu safrulahim cheikh abdou cheikh ibrahima defe ko ñaan mas na koo weesu waaye yonente bi salaa sallam rek moo ko weesu sayyidina jibril mënu koo weesu bi nga xamee ne waxtaane nañ ko ci ay conférence conférence mën nañ koo bàyyi nañ cee gàttal pour fooral mbiri julli nañu azamul ibadaati mooy jaamu bu gën a màgg ci jaamu yëpp nag lu tax julli dafa boole xeeti jaamu yëpp julli koor a ngi ci biir aja ngi ci biir si karturu yàlla ngi ci biir jàng alquran a ngi ci biir toroxloo ngi ci biir julli ci yonent ngi ci biir ak leneen loo xam ne nekkul ci yeneen jaamu yàlla yi nan la koor nekk ci julli ku woor doo lekk doo naan kuy julli doo lekk doo naan doo ci boole te ci woor nga xam ne du lekk du naan dana xool li ci àdduna kii julli nag du ko xool dafa war a ndax même turu yàlla sax boo ko dee sikkar nga xool ci benn tomb rek mooy moo lay dimbali ci nga mën a teewlu dëgg dëgg dëgg waaye boo yarxalee sa biir rek doo mën a teewlu na mu waree waaye bu fekkee yaa ngi xool ci benn béréb bu gàtt bu tuuti rek teewlu bi day dal di ñëw li ngay wax dal di lay dugg bu baax léegi bu fekkente ne nit kiy julli moom woor na ndax du lekk du naan boole na ci du wax te ku woor da nga wax boole na ci mën a xool ñu may ko mu mën a xool feneen te ku julli moom ci kanamam rek lay xool fu muy këpp jëm rek lañ sopp mu mu di ko xool kon koor a ngi ci ak lu ëpp koor jàng alxuraan a ngi ci ndax boo taxawee da nga jàng faatiha jàng saar kon jaamu malaayika yëpp a ngi ci ndax malaayika yëpp sàbbaa la ñuy def te boo rukkoo da nga sàbbaa malaayika yëpp am na ci yoo xam ne seenu jaamu dañuy rukkoo rek jàpp ci seen i woom rek duñu siggi ba ba saa di taxaw duñu duñu sujjóot duñu def dara ci loolu la ñuy yem boole seenu jaamu jaamuwaale nga ko ci biir julli bi ak ñoo xam ne dañuy sujjóot rek ba faaw duñu yëkkati seen bopp mukk du sabba ba bay saa di taxaw boole nga ci julli googu boole nga ci jaamu yàlla googu boole nga ci loo xam ne lii aj rek la ko nirool mooy sa jëmm ak sa lépp nga nga nga jëm nga jox ko suñu borom inni wajjahtu ci yéen di fatara sama dana hanifan wa ma ana minal mushrikin nga booy booy kabar julli ñeen ñi sax dañ koy wax noonu ci seen lamin wajjahtu ci yéen di fatara sama wa dana hanifan wa ma ana minal mushrikin mooy sama jëmm jëpp jox naa ko yàlla sama lépp lépp sama yaram sama xel sama xalaat sama bët sama nopp sama tànk sama lépp jox ko yàlla kooku ci julli la am ci julli la am sayetoo xool lenn wala ngay déglu leneen lu bokkul ak julli bi loolu moo tax julli bokk ci jaamu yu gën a màgg fañ ko joxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindeef àggu fa bindeef àggu fa julli kon ruuxam lu foor la moo tax ñu ne ku julli genn julli bu ñu nangu rek te képp koo xam ne ku ñu nangu julleem jiite na la nga topp ci moom daa ngi nangu sa julli daa ngi jéggal ñëpp te ku am genn julli bu ñu nangu da nga mucc ëllëg julli am na jeexit maanaam influence bu fort bu muy def ci xolu jullikat bi waaye nag ci kaw na teewlu ndax julli phase yi julli yépp phase bu ci nekk am na loo fa war a fas li nga xamee ne la nga fay wax wuute na boole na xeeti jaamu yépp ci ni ngay rukkoo ni ngay sujjoote ni ngay taxawee dafay gudd nañ ko gàttal foofu rek koor moom dañ ne junnatun suñu borom koy fayal boppam du yebal malaayika mu di ko fay moom itam lu bari lañ ci mën a wax aj noonu moom itam aj bu ñu nangu ajjan rek kay payam asaka day sellal alal ji li ci li ci taxoon mu sellal ko génne nga ci xaq yàlla jëriñ nga bindeef te waxoon nañ ne ki gënal yàlla ci mbindeef yi mooy ki gën a jëriñ waaw ci misi lee mu jëndee suñu borom tëkkuñu ko du génne wala ñu nekk ñu zahabal fidar wala anfiquna fi sabilillah bashir bi azamin alim yawma yuhma alayha fi nari jahannam fataqwa biha jibahum wa junubum wa zuhurum hadha ma kanastum li anfusikum lañ leen di wax fazuqu ma kuntum takfurun ñu def al islah ci matal diin waaw ma ne ci jëw kon mën nañu na di julli ñu yem fii conférence bi de xaaj xaaj defu ko te li ci gën am solo mooy mujj waaye nag jamono bi moo ko mayul te am na ay laaj seet laaj yi nag boo tax ki nga xam ne dafa ñëw toog déglu ngir bëgg a jëriñu te am lu ko itteel looloo ko itteel moo gën a mat a njëkk a jublu ndax bu fi jógee lam bëggoon a xam fekkee yàlla dogal na mu xam ko ajom faju waaw wax ji yëpp baax na waaw neex na dana tege ci yoon dana jëriñ nit ki waaye li nga xam ne moom daf koo aajoo bëggoon koo laaj gannaaw taxaw na te jamono ji mayewul nu àggale lu far ci jublu rek kon laaj yi xanaa ñu jublu ci xaaj de moom defu ko sax xaaj sax xaaj waaye nag baax aleykum salaam su ko defee ñu dugg ci mbiru laaj ci def ni mal amul fi tarbiyati shabab wa télévision wala musiqa ak tarbiya fi diin maa hiya zaka fi salaat maanaam maa hiya za azakat fi salaat fi salaat yi
xëy na ñu defoon ci julli waaw waaw waaw waaw waaw
mu laajoon léegi sëriñ bi digle
waaw mën nga ne par bon par bon robot waaw والتلفزيون والموسيقى Mhm.
أثر التلفزيون والموسيقى في الشباب Mhm. waaw moo di waaw da nga koy wax ci wolof na ko wax ci wolof.
waaw waaw waaw kañ waaw dafa laaj ni mbirum euh, jeunesse bi ak télévision bi ak euh, musique euh, musique yi lan la ci diine wax ba noppi sëñ bi bi muy euh, développé ci kii bi dafa waxoon ni ci julli asaka am na ci maanaam de dama wax ne jaamu yëpp ngi boole jaamu jaamu yëpp yëpp ñu ci biir waaw moom la waxoon moom mu laaj ma ni est-ce que nag asaka am na ci julli waaw loolu la laaj ñaari laaj yooyu la laaj
boobu si gën a gàtt moom ndax asaka am na si julli asaka jëmm lañ dëkk génne ndax jëmm gi bi ma ne bi mu ne inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samaawaati wal arda hanifan wa ana minal mushrikiin boppam wàcc na léppam ay soxlaam nag ay xalaatam ak béréb yi mu waroon a nekk wàcc wàcc wàcc na bànneexu dundam ak lépp génne euh, léppam mu jubale ko ci yàlla loolu mooy asaka ji asaka yi jëmmam ndax asakay alal asakay jëmmoo ko gën a wóor ndax nit ki bakkanam ak yaramam ak jàmmam moo ko ëppal doole alalam ndax bu fekkee ne amul jàmm ndax dafa tawat alalam jëpp àttan na koo joxe ngir wér kon nag ci fab jëmmam joxe wàcc ay soxlaam li nga xam ne daf ko doon ittewoo di ko liggéey ngir jëriñu ak di ci di noppalu ak di nelaw ak yépp mu génn na asaka ji ndax wàcc na yooyu yépp jëmm ji nga xam ne moo doon def yépp léegi mu jëmale ko ci yàlla kon asaka léegi moo gën a sell moo gën a mat ci asaka yi moo asaka yi nga xam ne du li nga moom rek waaye lépp nga joxe loolu mooy wàllam ci julli maanaam kon wàllu asaka ci julli mooy jëmm
xam ne daal ñu doon wax ne waaye fan boppam war nay wàcc boppam ndax képp koo xam ne yaa ngi dund sa nangoo gi dem ak a dikk xam nga ci loolu mucc te nit mu rek sa te nit mën nga def bàkkaar bu tuuti bàkkaar bu tuuti boobu xëcc ko ba indi ko ci bàkkaar yu mag bàkkaar yu mag yooyu mu mujje ko jaare ca bon bon ba ba tax na nit ki seytaan dafa bari doole war na ciy bàyyi xel fu mu toll di xeex lépp loo xam ne dana indi benn gàkku xol mu fexe koo dén boppam ñi nga xam ne nag ci ayima yi yooyu mel noonu yëpp daf leen gën a dolli xeet seen borom bopp dolli leen gën a tiit ndax ne nit ñi li ñu ma jàpp ak lu nekk sama bopp daal di gën a tiit ñoom ñoom daf leen dolli dolli ci koy def Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu daal nag bu ñu ko taggee mu ne allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum allahumma ij'alni khayran mimma yahdurun wa qul li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun bu ñu ko taggee mu ne suñu borom yaa ma gën a xam sama bopp waaye ñii may tagg maa leen gën a xam sama bopp suñu borom yàlla na nga ma def ma gëm fa ñu ma teg yàlla naa ko féete kaw yàlla naa gëm nañu ma jotoon yàlla na nga ma jéggal li ñu xamul ci man sama def ko waaye bu ma yàlla boo ma yàlla boo ma jàpp mukk li ñuy wax ci man ci lu baax te melu ma ni loolu daan wax kon nit ku baax moom bari na yoo xam ne dana tilimal nitu kese ki te moom daf koy gën a setal daf koy gën a yokk ndax waxtu boo xam ne yëkkati nañ ko rek day delloo si boppam luy cosaanam luy mujjam indi sàgganam gépp seet ndax ndax li ñu koy defal mérité na ko yeewoo na ko wala yeewoo ko du gis boppam mukk ne yeewoo na ko day boppam faw ne mérité na ko ndax suñu borom daf koy nëbb boppam ba faw ndax loolu mooy xifdu ndax dañ ne yonente yi maasumuuna lañu awliyaa yi mahfuuzuuna lañu alxaaris mu aasi bi daf doon dox benn bis ci wenn yoon mu xat yoon mu xat foo mën a jàdd rek ban la ak ndox mu dajeeg benn xaj mu daal di jàdd ci ban bi wala ci xaj bi xaj bi jàll mu soog a jàll bi ñu ko laajee ne ko lu tax nga def bi xaj bi Ibrahima rek mu ne xaj bi moo ma gën ndax amul bàkkaar te man am naa bàkkaar boo demee bàkkaar yu bari laa am xaw ma daañu ko baal wala duñu ko baal kon xaj bi ma gën maa ko war a jàngal ba ci mel noonu bari bari moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama bu nekk ak sàmm la kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi kenn ku nekk ci yéen daañu ko laaj ne mu sàmmoon li mu sàmmoon di tàmbalee ci boppam ay cëram juróom-ñaari ndénkaan yi ñu ko dénk muy cër yi bëtam mi ngi ciy xool li ñu ko li ñu ko daganal mu xool ko rek noppam mi ngi ci déglu li mu dagan a déglu rek ba cër yi ma bu loolu paasee ñu muy ñi mu yilif muy doomam muy képp ku aju ci moom kon bu xamee doomam dugal ko ci béréb boo xam ne bérébu kéefër la lu ko ca topp ëllëg tabi abam moom moo ko amee jullit ñi dañu war a di former seen milieu yi bopp maanaam seen wasat seen muhiit bopp yoo xam ne ñooy doxante di demante di dikkante di yeddante di gërëmante di encouragente di labirante di def lu baax di ko wax bu ko defee ku jublu ci digg ci diggante boobu màgg ci diggante boobu da ngay jub rek ba xaw waaye buñ sànni seen bopp sànni sa bopp mooy lan nga fab sa doom wala koo yilif yóbbu ko ci ñoo xam ne wane doxalinu islam milieu boobee mu mu yaroo ca jimmee ca xolam tilim boo liggéey ci biir nga di ko yedd ak di ko xas fekk yow yaa ko def yaa ko def boo amee sa doom ñu ngi ko yóbbu mu jàngi alquran ñu ngi ko yóbbu mu jàngi alquran école bi jamono ko indi xëy na ñu bari ñu ko bañ ñu ko bañ waaye ànd naag war na ànd ak wattandiku bu rëy léegi sax gis na ne ci yërmande suñu borom bari nañu jàngoon tubaab rek te suñu borom ñu ngi leen di xëcc ñii ak tradition yi maanaam li nga xam ne waxi lislaam la te ñu di ko wëlbati di ko soppi ci yeneen waxi ni ñu jàng ñu ngi ca jëriñu mu di leen yee di leen xëcc ci lislaam di leen ko tax a bëgg di leen ko tax a xam di leen xëy ci jëfe ko ba tey loolu ci yërmande yàlla la ko waaye de masuliya bu rëy maanaam responsabilité bu rëy wajur yi am nañ ko ci seen i njaboot waa ne sa doom nga ne daal boo koy bëgg jàng alquran dana tardé koy mu jàngal enfant nga daal di ko ciy yóbbu mu gunnee fa lan la sa moom Muhammad borom saa yi Abu Zayd borom borom risaala lu mu wax ci xale ne xol bi ñu gën a yaakaare yiw mooy bi ñu gën a yaakaare texe mooy xol bi nga xam ne ay jiitu mu jëm maanaam kon mooy xol bi nga xam ne yiwa ci jiitu jàmm ci jiitu te mooy lislaam ci jiitu te xol boobu mooy ngeen ji xol te xale bi ñu xamal ko lislaam ci waxtu ndaw day sax ci xolam ni bu yaade di saxe ci aw bay maanaam xam ni ñu koy gàtte bind daf ko ci bañ a dugg ci mën nañu cee saxe ñu ne mag mi li ñu koy xamal mu ngi gaaw a dañe ni bind ci kaw ndox mi booy bàyyi rek muy maataloo kon tabi maanaam warugar bi war ci diggante ki muy def ak ki muy def lu rëy rëy lu rëy moo tax ma ne ñun jullit ñi da nga war a sàkk suñuy milieu suñuy ndajey bopp yoo xam ne ci la suñuy xale di dundee ci la ñuy xam ne lañu war a xam ci la ñuy meloo nañu war a mel ci la seen i cër di làggee ci jaamu yàlla ci lañ leen di yee ci lii niru dara te du dara ak lii lore te bari ci jamono ba di nit ñëpp daw jëm ca di ko njëkkante ba di ca boo xam ne te muy lore kes kes kese te amul benn njëriñ seytaan dafa bari doole te doomu aadama neex na ndax seytaan li mu lay xëcc jëmee ci mooy li neex sa bakkan li nga xam ne neexoon na la naka jekk buñ la ca dëmasee sàkkal la ay lay caaxaan yoo xam ne moom ngay layee nga xam ne bu doon sa diggante nit ñi rek moom da nga am loo leen layee waaye nag yàlla moom kenn mënu ko nax kenn mënu nax yàlla malaaka mi lay bindal sax kenn mënu ko nax malaaka yàlla ci boppam kon ñu wàcc suñu ay njaboot mooy di taxaw ci jubal leen di leen waa fu toll di leen yee leen xamal yàqu-yàqu yu bari yi ndax seytaane moom dafa bari te nit ñi kat ñu bari seytaane lañ du ma ne diw seytaane la diw seytaane la diw seytaane la waaye képp koo xam ne kii lu mat fukki nit topp na ci yow benn yàlla daf leen xëy ci yow ñu bëgg la ba fuñ lay ñu dem seetaani ko wala foo wootee ñu wuyu la wala foo dem ñu lay joxe naan na nga ne te jëme woon nit ñi dara ci lu jëm ci yàlla wala lu jëm ci àllaxira seytaane nga seytaane nga seytaane su ma ta muslu nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ci sahih bukhari def na ci sahih muslim benn bis boo xam ne dafa julli suba ba noppi yéeg ci minbar bi di waare di waare ba tisbaar jot mu wàcc julli tisbaar yéegaat ci ko minbar bi di waare ba takkusaan jot mu yéegaat ci minbar bi waare ba timis jot nee na bis boobu la képp koo xam ne ci adduna bi da nga mës a jóg woote dara ak mu doon lu ma fukki nit topp la rek wax na sa tur wax sa sant am na lay réerale nit ñi ñi ko xam xam nañ ko ñi ko xamul xamuñ ko ah xam nga nag ñooñu mu la wax ay arab lañu te turu ajam yi sax duñu leen xam duñu leen mën a jàpp duñu xam it turu dëkk yi yëpp lañ ko wax waaye ci ko solo nee na ñi ko xam jàpp nañ ko ñi ko fàtte fàtte nañ ko kon ñii réeral nit ñi ñi ngi toll ne suuf bu fi mu ne boo xëyee jëm ci dëkk ba bala ngay dem ba dégg nga daje ci ñoo ñii réeral nit ñi mbooloo mbooloo man la képp kuy woote mbooloo di la wuy si nga xam ne fu ne la nit ñi jógee yow yaa leen tax a jóg ñu dikk di la déglu nga di leen wax ngir yàlla wala nga jëme leen ci sa bànneexu bopp wala nga jëme leen ci topp wala nga jëme leen ci àdduna seytaane nga dajjal nga dajjal moom la ndax dajjal ji ñu bari lañu dajjal yu bari lañu bokk masiix bi ci bopp mi ñuy wax ndax xam nañu ko seen bu yàgg ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ne sallallahu alayhi wa sallam ku ñuy wax ibnu sayyad ibnu sayyad nañu woon mooy dajjal maanaam dajjal la ci dajjal yi booba mu ngi war a am ay fukki at ak ñeent wala fukki at ak ñett yooyu yonent bi sax mu ngi ànd ak sina Omar ak sina ak sina Abdoulaye Omar mu fekk ko ci muy fa ak ay xale yonent bi doxee ko gannaaw alayhi salatu wasalam ba agsi ci moom dóor ko ci ci gannaaw mu geesu mu ne ko ndax dëggal nga ne maa yonent bi yàlla yónni mu ne ko dëggal naa ne yaa yonent bi yàlla yónni ci arab yi naan ummi yore ummi yore bu fata arab yi lañ ci jublu arab yi amuñu téere ñu nga daaw ñu jàng bu ñu lu ñu jàng te néew jàng jàmbur la ñu fat waaye mosu ñoon xam luy téere lu jiitu alquran seede naa ne yaay yonentu maanaam illettré yi ñu jàngul ñi mooy arab yi daal na yonent bi man itam ndax seede nga ne maa yonent yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man gëm naa yàlla ak yonent bi ak téere daal ne ko waaw yow sa mbir mi lay dikkal nan la lay dikkale mu ne ko ñaara lay dikkal kii lay lay gën a wax lu dëgg kii dana wax dëgg mu ne ko yow xulli ko aleyka maanaam mbir mi dafa jaxasoo ci yow ne ko waaw li ko wala fi li xale yi wax naan takam takam nëbb naa dara lu mu doon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nëbbal naa la dara loolu lu mu doon mu ne ko huwa duxu fekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi nëbb far taqib yow ma tàgg sama bi duxaani mu fi nii alaxira moo tax muy wax ak duxu nag duxal la ci duxaani foofu ulama yi wax na ci wax yu bari moom it ñu arab yi wax na sax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo am xalaatu boppam rek ne na ko laaj loolu nga fekkonte ne suñu borom moo ne ko laajte ko kon ibnu sayyad faafi du xam mukk li yonente bi nëbb ci xol waaye comme xam na ko ñu ne ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko xalaatal boppam ne ko maada xabatu lak ana lan laa la nëbbal mu ne ko huwa duxu fekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi nëbb ci xolam fa taqib yow ma tàgg sama bi duxaani mu fi mu ne ko ixsa falan ta du wat fawra doo wees jëmal fële doo wees mukk sa sa sa dagare maanaam sa dagare fi la yàlla yem la doo ko wees mukk saa si moomu itteeloon na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax li ñu ne woon mooy dajjal te muy nit koo xam ne dafa daan def ay kéemtaan di wax ay kéemtaan di nettali lu ñëwagul def yu bare bare yoo xam ne jaaxaloon na nit ñi am na benn bis yonente bi sallallahu alayhi wasallam jaar ci tatay giiru yahud giiru yi nga xam ne giiru yahud la ci la saa si nekk saa si mooy ibnu sayyad moomu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko yor saa si mi ngi lal mbubam ci buntu néeg yaayam yaayam ngi boyal fourneau di ëpp noonu bay génn yonente bi sallallahu alayhi wasallam di làkk ci tàndarma yi ànd ak sina abubakar ak sina omar di ko yor di ko yor di yor di yor ba nga xam ne mu bëgg bëgg ci moom rek yaayam ne ko saa si moom na sa doon tawal mu daal ne bëri jóg fekk bi nga xamee ne yonente baa ngi jëm ci moom mu ngi déglu li mu wax daal kenn xamul mu doon yonte bi salatu bëggoon a déglu ba xam li muy wax lan la bëgg ko bett bi nga xam ne dig na ko yaay saa fi ne ko saa fi dawal Muhammad ak mu dal jóg taw nit ñi saaba yi bari ay wax ci saafi ibnu sayar ndax mooy dajjal mi ñuy wax mi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di tiitale nit ñi ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ghayrukum akhwafu ni min ad-dajjal ku dul yéen laa gën a tiit ci yéen ci ay yàqam ci dajjal maanaam sahaaba yi ñooñu gisoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu fekkee dajjal saafi ci boppam mujj na tuub même gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam defaat na ay taw te jiw kéemaane Abdoulaye ibn Omar bari na ci mu fekkee ba bërëb bi xam naa jamono bi soxla wuñu mën a jaaraat ci yooyu bari wante saafi nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee woon na dajjal yahud lay doon te man tuub naa dama yahud jullit laa yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee woon na dajjal du dem màkk du jëm madina te man maa ngi ni dëkk madina te maa ngi ni jëm màkk yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na dajjal du am doom te man maa ngi ne am naa doom lakkal ngeen ma trop trop trop ma toll ñu naan ma dajjal dajjal dajjal waaye ba tax li ma ngir yàlla du ma dajjal ba ñu gëm ne waaw du dajjal mu ne waaye nag mu jaar képp xam naa ko de na ko yàlla lan nga dee yàlla yàlla mu ci yow saa si ñu seet noonu képp koo xam ne kii yaa ngi réeral lu ma fukki nit wala ñu ngi lay déglu nga jubal leen fenn ku dul ci yàlla ci dajjal ji la nga bokk dajjal nga ku mata muslim nga ku mata muslim nga muy ci zahir muy ci baatin muy noo mën a walbati ko mooy mooy noo mën a doxale ak noo mën a def kon nag wal iyaasu billah yàlla nu yàlla musal ci way réeral ñi ak seen réeral yàlla nu yàlla musal ci réer ak la réer di indi fekk da nga leb leb nit xaalis pare ko faat wala mu tukki gisuloo ko waaw waaw waaw bu la kana ñaata laaj ñaata laaj moo fi nekk ci pare ban wax nga bay mooy laaj laaj bu fekkee da ngaa leb nit xaalis kooku faatu wala mu tukki te gisatiloo ko lan ngay def ak boo dee julli ba ci biir sa julli yàqu da ngay doog julli wala da ngay continuer bor boo ko amee ni moom lii la bor moom mën a fa taxaw rek bu dundee bu nit ki amee bor bu dundee bu dee ak fu mën a dem bor baa ngi fa taxaw rek mooy dox diggante mag àjjana ba ñu ne fa innahu la qutil insaan fi sabilillahi salata marratin summa aasha wa maahu daynun la yadxulu janna bu nit doon xare jihaar ci yoon yàlla ñu rey ko mu diitu ngoon dundaat ko muy jihaar ko ba ñu rey ko ba muy ñetti yoon yomal xiyam bor nekk ci baatam di tàbbi àjjana te fay ko bor nag bu fekkee ne ki nga ko amee da nga teew moom leer na da nga koy fay boo ko mën la fay nga baal ko bu la ko mënee baal baax na bu la ko mën la baal nga seet na nga def waaye nga xam ne rek bor moom jéem a fay rek foo toll nekk sa bopp bu fekkee nit ki dafa tukki gisatoo ko xamul fu mu tukki wala nekkat fi bu fi nekkatul te mu leer na mu gaañu na moom leer na mu mel ne alal ji mu bàyyi woon am na way doon way doon ñu dañ koy jox mu mel ne ku tuub tuub rabbul mabaali bokk na ci charte yi maanaam delloo tooñaange yi kon kii dund amee bor xam ko itam rabbul mazalim boobu daf ko war daf war a delloo bor bi kon bu fekkente ne ki mu koy ki ko ki ma ameel bor bi ku fi jóge la daf koy jox ñi koy doon fekkee nag xamul mu ngi dund wala dundul li nga ko mën a sant moo di na na fab lu toll ne bor ba mu sarxe ko ci yéene yi sarxeel kooka mu demee ne dellu ci for for ci kaw ànd ak yéene yi nag bu ko gisee moom dana ko fay lu dul ne bu ko xamalee loolu mu xamal ko loolu mu xamal ko ne ko kon gannaaw sarxeel nga ma ko d'accord naa ci loolu maa moom sarx bi bu boobaa kon bor bi wàcc ko waaye bu feeñee te mu ne ko man kat sarxewu ma sama alal danga may danga may fay ba tey bor baa ngi ci àq baatam du fay ko di nga bu fekkee ne gisewuñu fi itam bu yemal xiyamee lan ko sarxeeloon day dellu si taxaw gannaaw sarx dañ daf mel ne doomu nag bu ndaw boo xam ne dañ la koo jox nga di ko yar di ko yar di ko yar ba mu nekk yëpp kuy kon sarx ba nga sarxeeloon ba nga koy sarxee muy fukki dërëm mu nekk noonu mel ne nag woowu ñuy yar ba tax ba nga xam ne yow bu yomal xiyamee buñ indee tuyaaba ji te fukki dërëm nga amee nit ki dana mel ne cent mille francs bu ko rogee cent mille francs yooyu doo ko fay lépp da nga koy fay ci kenn la nga ko xaqewoon la nga ko amee xaq rek la nga def yaa koy moom ak noonu doo ko bu fekkee nag li ko amel du bor dafa niroog bor waaye ci yaramam la ciw deram masalan da nga ko waxoon lu bon dañ koy jëw daal wax ko lu bon loo xam ne bu ko déggee dana ko naqari lool kooku moom wala maa yi dañ cee werante ndax nee ñu doo ko ko xamalaat ndax mën na indi noone bu fekkee ne nit ko xolam xat la du la baal mukk dana la gën a bañ te du la baal kon nag li gën a bari mooy na nga bari say jiw ak di ko balul moom ak di ko sarxel di ko balul ay astaghfirullah azim ak di ko ñaanal lu gën a bari ndax bu bu keroogee ñu jàkkaarle ko ak ji nga ko amee ak ji nga ko amee kon ak jëf ji baax ji nga ko defal dañ koy teese dañ koy teese waaye bu fekkente nag yow boo ko waxee dana la ko baal te mu indi dara mooy li gën a sell mooy njëgal bi gën a sell ndax xam nga njëgal ay maqaama la ay martaba la ndax afu ak saf du benn afu mooy nit ki daal dóoroon na la jëgal nga ko waaye léeg-léeg man yow daal billahi dóoru ma dóor dama dama rus rek wala dama xam ne du ma ko topp rek moo tax daal yaa ngi koy wax rek léegi fàtte woo ko dugal safal kooku afu rek la waaye du saf saf nag bu la dóoree nga seet du ma ko topp bàyyi rek non waxuloo ci dara bu nit ne waaw yow yow daal diw boo ko toppoon dóor nga ne bàyyi na yow bàyyi na mooy saf moo ëpp tiyaaba mooy saf safal jamee nag ina rabbuka xalaaqul alim yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci Uhud bi ñu reyee Seydina Hamza Hamza ibn Abi Abdul Muttalib te ñu boole ko ci ñu doon def tamsil maanaam daal mutilation ñu daal défiguré ko dagg bakkan yi dagg tuñ yi xoof nopp yi ak cër yeeg yooyu butti butti ko ci biir bi génne res yeeg yëpp ñu def ko te yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne musuma taxaw bu ñu ko tiimee ne musuma taxaw taxawaay bu ma naqaree ne bi ma taxaw waaye bu ma yàlla mayee ma jekk ñooñu bu soobee yàlla dinaa leen defal tamsil boo xam maanaam daggat boo xam ne kenn ko mos a gis alquran daal di wàcc fu mu taxaw وإن عاقبتم فعاقبوه بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون bu ngeen dee fayante fayante leen yem képp ca lañ leen tooñoon waaye bu ngeen muñee bañ a fay it moo gën na nga muñ sax nag yow man nag gannaaw yow sëg muñ ci yàlla rek la da ngay dellu ci yàlla fàttaliku yërmandeem ak baaxam ak ni mu la xamee nga gën nit ñëpp ba tàng la yéen la ba ko fàttali doo jàpp kenn dara dama sama illa billah wala tahzan alayhim wala tak fii dati man turon kon li ñuy def ak li ñuy pexe li ñuy yëpp bu ko naqarlu tegal sa bopp ca kaw naqar tegal sa bopp mu féete kaw fayonte wala nit mën la def wala naqari wala dara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw dafa dikki woon ci melaw nit ndax suñu borom bu yebal malaayika yi ci nit ñi wala koo xam ne melaw malaayika lay amee ndax ko nit ñi duñ ko mën a roy te bu ëllëgee kon ñu amul lay mu indi nit melal ko melaw woo xam ne day mel ni nit ñi mel rek di xiif di mar di sonn di fàtte di ñàkk di am di mer di bépp la lépp li nit ñi mel yëpp rek lu nit ñi mën mu mën ko lu mu mën nit ñi mën ko ndax taxaw li xamante ko jëf rek alayhim yamal xiyam ngir bu yamal xiyam bu ëllëgee moon leen ne leen li mu doon def lépp mën ngeen koo def lu dul yenn ci yu néew yoo xam ne daf koo jagoo nga xam ne ñu war ñu ko ca fekk te dana xam ne leen xam ne lii li ma jagoo kon nit ki pour jëble ngir wattandiku itam benn xaq bañ ko topp te lu jafe la lu jafe-jafe la benn bàkkaar bañ ko topp benn xaq bañ ko topp benn bàkkaar bañ ko topp moo gën a yomb benn xaq bañ ko topp ndax bàkkaar nit ki bu fekkee ci mu ngi tuub fu mu toll di tuub tuubam ëpp jàddal ndax tuub doo tuub mukk te jéggaluñ la waaye nag tuub am na ay charte charte bi mooy bu njëkk bi mooy rëccu da nga ko rëccu ba def li ko defoon naqari la nga yéene doo ko defaat mukk mukk mukk mooy ñaareel ñetteel bi loo ci mën a dabaatal nga dabaatal ko kon matal nga sàtt bu ko defee rek suñu borom baal na la bu fekkoon ne bi nga tuubee day dëgg ci yow nga matal sàtt yooyu ci suba si 10 heures jot nga dellu defaat loola tuubati midi jot nga defaat loola tuubati tisbaar jot nga defaat loola tuubati takkusaan jot nga defaat loola tuubati timis jot nga defaat loola tuubati waxtu woo tuubee rek tamuy dëgg ci yow nga matal sàtt yooyu yàlla baal la kon ba tey kon dee ñàkk yu baali bàkkaar moo gën a yomb ak li muy jafe-jafe moo gën a yomb dee bañ yu baali xaq loolu moo tax jëf yu baax yi war a bari ndax xaq yi xaq yi nag bari na te jafe naa watandiku te metti na metti na lool lool lool lool lool ndax li ñuy wax taflis ci xaq yi rek lay jógee taflis mooy lan yow man saa nit koo xam dafa ñëw indaale julli bu bari indaale koor bu bari indaale jihaar bu bari indaale sarax bu bari indaale yërmande nit ñu bari indaale lu bari bu ñu peese ko ay bakkaaram du lu tuuti ay jëf yu baaxam di lu bari mu war a dem àjjana benn waaye ñëw ne ko man de saaga woon nga ma fay ma daal fab ci tuyaa baam fay ko ki ñëw ne ko man de amee nga ma bor ñu fab ci lu toll ne bor ko fay ko mu bëgg a dem keneen daal di ñëw man tam nga ma dóor te neex ko baal mu ne ko fay ma ñu fab ci ba tey ci tuyaa bay jox ko keneen daal ñëw ne ko man jëwoon nga ma daal kii ne ko man féewale nga ma jiw kii ne ko man de taxal nga ma faat waxtu kii ne ko yow ñu di ko fab ba di ko def ba xàq yëpp matul li ma amoon ci tuyaa ba jeex tàkk ku ñëwati léegi amatul tuyaa ba ju mu la jox dañuy fab ci sa bàkkaar lu toll ne lam la tooñoon sëf ko di ko def ba nga xam ne moom amatul benn tuyaa ba waaye bàkkaaram bari na trop ba attanu ko daf koy yenu ak biir fa faar xam du daroo xam kooku mooy taflis al mu fallasuna mooy ñooñu loolu nag xaq yi dong ko mën a indi xaq kon xaq yi lu ma tax waxtaanee ko la xaqi dëkkandoo xaqi jullit ak morom xaqi waju xaqi mbokk yooyu yëpp xaq ak ñu war a sàmm la te xaq yooyu yëpp boo ko seetee li ci gën a jafe waxtaanee ko mooy nit ki dëgg nga teg ci moom baat mooy li gën a tiis mooy li gën a jafe waxtaanee ko mooy li gën a bon mooy li gën a métti ndax bu nga baat bi nga teg ci garam lu ko méttee méttee métti lu tax alxuraan ko niraleeg sa mbokk nit mu dee médd nga ñëw di ko lekk القرآن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيكم أحدكم أن يأخذ لحم أخيه ميتا القرآن دي مثال bi nga xamee ne dañu rek mu maanaam rey nañu kooku mooyoon yàlla fekk di sañu ñu ko reyee ba noppi yoon bi di dem ñaari gaay topp ko di jëw ki ñu rey dañu agsi ci mbaam mu medd mu ne leen lekk leen kii lekk leen mbaam mu medd mi ndax moo gën li ngeen di def waaye ji ngeen di jëw seen naa ko ci àjjana muy diri ay malaanam nga xam ne kon nit dana jaamu yàlla ba bëgg a dee jox ko keneen ku mu ko yéenewul woon ndax li mu ko wax nit it dana la tooñ tooñ ba tooñ la tooñal bi la tooñ boo xam ne bu ngeen dajoon yomal xam da nga koy jiital mu marta du naan ngay jàmbat tooñ boobu la di ko wax di ko waxal dara lu dul noonu di ko waxal di ko waxal ba ameelatu la benn xaq nga continuer di ko waxal ba yow ameel ko xaq bu keroogee moo lay topp kon yi gën a mat a wattandiku loolu ci la bokk kon nag wattandiku sa morom ni bor boo ko yoral mu ci gën a néew waaye bor bi li ma waxoon ne dana dox diggante nit kenn àjjana ba tey lu diis la baat yoo ko wax benn mu teew wala teewul li ci nekk xaram naka noonu itam xamal amal ko lenn loo ko mën a jël la wàññi dara defuloo ko naka noonu gis lor ji jëm si ci moom boo ko waxee mu wattandiku ko waxuloo ko ko wala boo ko waxee mu mën a fexe ba mu dañ gis ko ndax sharia dafa def jullit ñëpp ñu di mbokk ba ci sharia ndax fi mu nekk wute naag aaday nit ñi ak aaday réew mi ni ñu tëralee seen yoonu bopp waaye bu fekkonte ne romb nga xarum nit mu laxasu wala dara jàpp ko ba nga xam ne bu ñu ko rendee bu ñu ko rendiwul mu dee te bu ñu ko rendee dagan na nga bañ ko rendi yoon dara fayloo na la ko da nga ko fay da nga ko fay naka noonu nga xam ne boo amee woon sa mbubb moo xam ne morso mën na ci jóg te du ko yàq nit ki gaañu deret ji sottiku lu dul ñu takk ko ak morso rek moo mën a tax moo mën a tax bu dee nga bañ ko yéene sa mbub moom sa morso boobu donte morso bi da nga koy jox ñu takk ko ba ngeen ñibbi mu fay mu fay la sax ba tey waaye war na nga def naka noonu bu fekkoon da ngaa yor ndox nga war a jàpp nga ànd ak xaj wala nga gis ci xaj mu mar mu mar ba mar bi métti nga dem jàppe ko bañ ko ko jox mu naan sa xaq jooju nga amel xaj bi bu def nga bàkkaar boo xam ne bu fekkee ne ëllëg yow xiyam daañu atte sa digganteeg xaj bi te mën naa indi coono bu métti ci yow kon suñu borom dafay santaane nit ñi ñu wattandikonte bu ñu wattandikoo seen borom ba noppi nañu wattandiku seen maam nañu wattandiku lépp loo xam ne lii eh, suñu borom def na ci yéen ma ne li yam bi sallallahu wax ne fii kulli di kabidin ratbin rahmatun lépp lu am res mu tooy lu ñu war a yërëm la te boo ko yërëmee yàlla yërëm la ni suñu borom tabaraka wa taala ne yërëm leen ñi ci kaw suuf ka ca asamaan yërëm leen suñu borom kenn mënu ne ma la fenn waaye dañ ko waxee noonu aadala rek Moustapha Mbaye ñu laaj téré imam bi nga xam ne dañ ko rayoon ndax doon défendre Salman Rushdie dañu rayoon ko Salman Rushdie mu ne imam boobu dañ ko rayoon xanaa Angleterre la woon benn imam bu doon défendre Salman Rushdie nee nag li ci islam wax ci ray boobu ñu ko ray di wax mais fan yi ci gannaaw ñu siiwal la ñu di ko wax daal maanaam actualité bi mu maanaam teew bi mu teew waxoon na ko retentissement bu am am solo bu rëy bi ñëpp àdduna bépp daanaka ci wax muy benn waaye boo xam ne dañu yeewoo seen euh demoon feeñal ne tuub na ñu di ko wax Salman Rushdie mu dem bind benn téere ci anglais wax ca lu ñaaw ci l'islam wax ca lu ñaaw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba réew yi jullit ñëpp ci nekk jël ci sa position maanaam na nga xalaatee ne noonu nga war a def ci mbir moomu le ba góor googu fi jógee rahimahullah ñu di ko wax Khomeini ayatullah ca bilal Faris joxe woon dige woon alal ju bari ci ku ko rey am nag ci ñenn ci jullit ñi sax ñoo xam ne dañ cee am ay position maanaam ay ni ko mën a waxee ay daal jëfandiku maanaam ay téete téete yoo xam ne daal gënal jullit ñi ak ñeneen ñoo xam ne wane nañ seen naqar ak ñoo xam ne dañoo toog rek di jàmbur jàpp seen jàmbur kenn xamalu leen ci nii lañ wala nii lañ wala nii lañ am nag benn iliman boo xam ne dafa amoon wax ju mu wax te daf daan jiite jàkka am wax ju mu wax ba am ñu ko ci mere wax ju mu wax nag dafa jëm ci lu yërëm waa jooju rek ndax ni ñu ko maanaam condamné amoon maanaam ni ñu waxee ne nañ ko rey ak yooyu mu gis ne loolu jaaduwul ba am ca wax yoo xam ne am nañu mu naqari ci nit ñi askanoo ci l'islam ba ñu yongaan kooku reyu yongaan mooy li tubaab di wax assassinat maanaam rey goo xam ne nit ki atte wuñ ko ba dañu yoon ko rey rey ko maanaam rey goo xam ne dañoo fab rey nit ki benn dañ koo yoot ci këram guddi wala dañoo dajeeg moom wala mbooloo daje rek dajeeg moom xeex ak moom ba rey ko lépp lañ tuddee assassinat mooy tertial ñu def ko tertial boobu maanaam ñu yongaan ko daal rey ko moom lay laaj ndax ñooñu rey imam jooju nga xam ne dafa doon wax waxi mu mel ne kuy dimbali kooku di xas l'islam di dal ci kaw l'islam di dal ci kaw yonent bi ndax ñi ko rey lan mooy seen atte lan ne ko nan la ko l'islam gisee ñu ngi tàmbalee ci di waxe ne l'islam lan mooy rey gi l'islam digle ak gi mu nangu rey gi l'islam nangu moo di lii nit ki day sëy ba noppi mooy wala mu bët ci diine mooy mu gëm ba ne jullit la murtat li wax murtat mooy mu dellu génn ci diine wala mu rey bakkan boo xam ne yoon reyu ko reyul bakkan deful dara mu dem rey ko yooyu ku ci def lenn yoon rey na la képp ku rey nag geneen rey boo xam ne ki nga rey doxalewul noonu l'islam nangul googu rey mu di reyu yoon kon li ci def lan la li ñu tuddee li tubaab di wax règlement de compte ñu seet loolu nu mu demee ah iliman bi ñu rey maanaam circonstance maanaam wóof yi ñu ko reyee ak ñi ko rey ndax ñu rey ko ci ban cause maanaam lañ ko reyee iliman bi jullit la xanaa ku ñu ne iliman la day jiite du jullit rek sax bu yem nii waaye jullit la boo xam ne ñi ko jiital nangu nañ ne am na xam-xam bu mu mën a yéwénale jullit bu xam xam atee laab te itam ah yéen da maanaam war mat na yoon la ñu topp ko maanaam topp ko l'islam santaane na ko topp si moom julli julleen bay na l'islam nangu na ab julleen ñooñu ko sas loolu la ñu wax maanaam ñi ko jiital ñi mu jiite loolu la ñu nangu ñooñu ndax xam nañ leen wala xamul leen ñun xamul leen ñi mu jiite ak ñi ko jiital xamul leen ñun ba mën leen a atte ndax li seen tànn boobu ñu tànn waa ba nga wala déet loolu suñu yoon nekku ci ndax xamul xamul xamul ko ñi ko rey lan tax ñu rey ko ndax ñoom dañoo amoon ak moom yeneen i xew-xew yu tax ñu dëgg ci ñi rey ko tuddoo l'islam wala l'islam lañ ko reyee bi ñu ko reyee l'islam mooy noon noonu l'islam boobu nga xam ne dafa feeñal ak noone bu bir te biral ko ba bind ko noone bu mu noone l'islam ak noone ko yonent bi kon noonoo na ko jullit ñëpp kooku ndax looloo ko naqari ba ñu rey ko maa ngi reekat bi di reekat bi moo tax suñu borom nekk ala ko ak yow ndax ñi kenn ci nekk maqaam ba nga def dafa diis ci yow ba lëm ci ëpp te nungul maarifa bi ba tax la nga man ci melaw nit ci lekk mën na loolu yëpp dafa fekk moo gën koo matal nelaw mag ba nga xam ne daf daan waxtaan di ree di kaf du wax lu dëgg rek waaye daf daan kaf mën naa ànd ak Seydina Aïcha radiyallahu anha benn di dox ba mu yàgg mu ne ko nan rawante ñu rawante Seydina Aïcha raw ko mu toog ba nga xam ne am na juróom-ñeenti at ñu dox ak leen mu ne ko fàttali ñu nan rawante ñu rawante yoon bi sallallahu alayhi wa sallam raw ko mu ne ko raw na nit raw na la leen loolu lépp ak ni mu xam yàlla ak ni mu ko jegee ak ni mu ko ragalee ak ni mu ko bëggee ak ni mu ko mën a joxe xaqam ak ni mu ko mën a warmaale nga xam ne warmaale gi mu warmaale yàlla ci feeñ yi suñu borom ci feeñ ci tafatu ay bu nekk ak ni mu ko joxe xaqam bu bu ko juróom-ñaar fukki junni yonent ak juróom-ñaar fukki junni ci bu ko wóoru woon ci benn fekk lu bët ñu ñu tey ñu ruus ndax màgg suñu borom tabaraka taala nga xam ne am na tam ci ci mboolem maqamaat yi alayhi salaatu wasalaam loolu ak màgg boobu màgg yëpp nga xam ne maa ngi mujj nañ ci nekk ak bu newoon ci nekk moo gën ñëpp mu nekk mu yàlla bind lu dul dama xëy képp moo ci am benn wax tëj naa ci la ne moo gën waaye vraiment yëpp ñëpp moo ci moom te li wax tam ñëpp ñu loolu moo wax ci nekk bi ñëpp ñu ne ko wax mën nañ asabay asabay asabay yow waaw am na xaj boo xam ne yàlla ci xalaat ci dëgg xalaat mu ne ànd na ba ci juróom benn asamaan ñu tag lu mel ne garab ñaari tàgg nekk ci ma toog ci ñuy tàgg te naa jibril toog ci tàgg yi rasulullah lam naawu ci ma xë ci naa jibril xam man rek ma tax mu ne ba mu jógee laa xam ne jibril moom la ko xam-xam ndax dafa xam ne di jëm ci ñoom moo tax nit yi man xamu ko booba yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci juróom benn asamaan mu ne booba day fekk na ay ndànd xam-xam yoo xam ne dañu ko nëbb ay magasin yoo xam ne benn buñ ci woon ci naa jibril dana teew waaye dañ koy nëbb kañ lañ ko nëbb ndax ñeenti meloon la am ci guddi boobu ñu nekk ci kaw suuf amee meloo doomu aadama kese am na lu mu gis bu ko xamul ci naa jibril dafay laaj jibril moo ko xamal mu liggéey ba dem ci asamaan ñeenteel ci mel ni malaaka amee meloo malaaka lu mu gisal jibril xamal na ko jibril li mu demee ba ci ci fekk mu tax a jéggi juróom-ñaari asamaan yi ak gisatul loo xam ne lii buur na bëtam mu ñu ubbil ko xam-xam bi nga xam ne moom la ko yàlla jagleel dugal ko ci biir ndànd xolam ñu ubbi ca benn bunt jibril xamatul dara ci kanam jibril mënatul dara ci kanam melatul lenn ci kanam ci jagleel boobu la àggee ca xabiyatul kut xew lépp lu doy waar ak noonu mu mel ak noonu mu mel mu nekk ci biir tën bi nga xam ne mooy aadama suñu borom bindagul aadama ba mu àgg ba mu ngi taxaw lu dul mu nekk tënu ban suñu borom nëbët ko bu mu fat bu mu tooyalee bant ba mu tooy mu nat ko bàyyi ko ñeent ci guddi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam inna allah tabaraka wa taala xamara tinata aadama bi yéegi arbaina yawman bi nga xamee ne nat na ko ba mu farax mu tàmbali ko bind àgg bu mel ba mu war a mel mu tuddal ba malaayka yi ci moom malaayka yi iblis bañ ndax ni mu xamee woon yàlla ak ni mu jaamu yàlla lépp dañu alak ko loolu lépp su ko alakat loolu lépp yonente bi sallallahu alayhi wasallam fu mu teg yërmande ci jullit ñi ak ci waa adduna iblis teg fa fexe ci waa adduna bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam teg ci yërmande yàlla ba mu agsi iblis xëcc meram yàlla dugal ko ci jëf ji di xëcc nit ñi di jëlee ba mu am waaye su fekkee ne mën na sax kon taxaw fii ñoom dem ci laaj yi su fekkee da ngeen am ñoom waxtaan moom du jeex mu nekkoon mu toog kon dem dem xaaj kon waaye day ñu xam ci ñu wax laaj ñu laaj jërëjëf nit ñu xam ci rek kon ñu ñaan yàlla suñu kanam waxtaan nga xam ne am na solo lool kon ba léegi ñu jublu ci laaj yi laaj ma mbay ak dim sahara mooy laaj ne du ne xale bi jigéen boo xam ne nii dafay jaamu yàlla maanaam day jàpp daal léeg-léeg dafa am ñenn ñoo xam naan kooku dafa am gaaf mu laaj ko xam ne ci yàlla gaaf wala daal dañuy ñenn di ko gaaf daal boo ne war a jaam yàlla mu ne xale boo xam ne nii xale bi jigéen waaye di balaa di gaaf di muur di doxal ci ñu daal ñoom ñenn ñi daal ñenn ñi ñu naan gaaf la daal ci xale mooy nag loolu ñu tàmmal mooy ñaareel bi laaj bi mu ñaareel bi mu ne day laaj al musa xam ne ñoo la maanaam góor ak jigéen ñu joxante loxo suñu bëgg suñu tàmmal ñetteel laaj bi mooy lan ko xooy ak nit yi ak fecc yi ak jarbu gàtt ak yu xat yi ak xeetal ak yokk garaw waaw kanam ak li ma nag ah li ma wax rek ko wax lépp nag ñun ma xam ne kenn rek jaamu ko ba nga xam ne dañu leen yor li leen ak bu la ko mën a mën a waaw li ma waxoon ne képp ku yonent bi sallallahu alayhi wasallam xëcc yërmande yàlla ba mu dege jàmm iblis xëcc merom yàlla ba mu dege jàmm bu ulama yi wax baaxut yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane ak melo yàlla iblis di dugal ci xel yi xol yi seytaane yi ak seeni xel seytaane dafa am ci nit am ci jinne ni alquran waxe ne seytaane lim ci wal jinni yuuxi ba'duhum ila ba'din zuxrafal qawli zuxrafal qawli ghururan ma fa'alu qadrum ma yaf'alun wa inna shayatina la yuuxuuna ila awliyaa'ihim bi ijaabikum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun seytaane ñoo waxoon ne fépp ku yonent bi sallallahu alayhi wasallam amee ngëneel lu mag lu mën a xet lu jinne yëpp iblis am fan lor bu mag mën a lor jinne yëpp bépp boo xamee ne bi nit ki gëm na ci lu baax seytaane ñaawale ko seytaane day dugg ci xol nit ñi jaar ci lamiñ nit ñi di wax nit ki rek nag mooy wax fekk seytaane yoo nit ki fekk na boppam waxul seytaane yoo dafa jaxasoo seytaane nag ba xàmmeetul boppam ak seytaane ndax seytaane dugal na ay xalaat ci xolam ba mu gëm ko mu dugal ko ci xelam ba mu xam ko mu ruux ko ba mu wax ko kon seytaane yoo xam ne ci waxul doomu jullit yoo xam ne xam na ne jàpp farata la ndax yomal sa am gannaaw nit mënu la jàpp mooy njëkk nit càpp jullit laab wa aratu xabat wa taaratu xabat wa sawdi wal barin wal makaan nga xam ne julli yomal xiyaam moom la ñu njëkk a seet bala ñuy seet lenn bu jubee ñu soog a seet jëf yi ci def bu jubul kenn du seet dara dañuy tax lépp sànni ko ci kanam li nga xam ne nag mooy tax nit ki mën a julli te mooy tahaara ñu gaafaral ko ba mu ñaaw ne ko yow day doo day jàpp da nga amee gaaf gaaf mooy lan sax gaaf def naa lu bon la mooy li xëcc lu bon daal yow boo dee julli boo dee jàpp julli xale bu toll yow doo am wërsëg wala doo sëy wala da ngay daan ci dee wala da ngay nekk ñax la loolu yëpp nit ñi waxuñu ko seytaane quoi waaw seytaane dafay daw ci biir yaramu doomu aadama daw waaye dara فمن ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين ومن يكون بجلي ولد تبو جاكل تأمل عن كت بجلي بجلي بجلي بجلي بجلي بجلي أخوان لما تحب من لم تحب جاك موي لم بنت من كاف تك بو أمون لا جاك جاك أمون كي أم جاك موي تجو جاك borom gaaf bi mooy ci du jàpp ndax lépp lu mu am képp koo xam ne kii jaaruloo ci yoon wi loo am ab taxañ la taxañ mooy lan mooy di la nax di lay xëcc ndànk ndànk ba daane la ci tàmbali boo amee xéewal lu baax xéewal boobu de du ànd ak barke dafay dugal sa xel foof ak fuukare ak wane ne nii laa mel ak maa am lii ak maa appli ji ba lor la boo amee lu dal lu la dal lu metti itam du doon mugal lay doon du doon nattu ndax nattu boo muñee day tippi say bàkkaar di yokk say maqaama di la indil ay tiyaaba lépp lu dal doomu aadama boo xam ne jullit la doon jëlee ko jàngam mu xam ne yàlla ko ko teg tuddee nañ ko nattu te nattu moom jullit bu ñu ko deful nga jàq boo xam ne dara ci yàlla kon nattu lu baax kooku nag ki nga xam ne nag moom jaaru ci yoon bi du am nattu loolu dana ko dal nag lu bon dana ko dal ni muy dalee ñeneen waaye lu ko dal moom ci biir nattu mbugal la luy mbugal lan la wutal nattu mbugal dama wax ne mbugal moom bàkkaar nga ci am te doo ci am tiyaaba mukk daf lay yokk bàkkaar ba noppi ak métit bi li nga ci am wala naqar bi nga ci am wala ñàkk bi nga ci am muy metti sa xol itam te duñ la ci fay tey daf lay xëcc jëmee ci lu bon ndax benn bu fekkee lu metti problème da nga dem ba révolté kon bari la maanaam nga daan ne yàlla daal li ma teg naan bu ko defee day loolu day tax doo bëgg yàlla te boo bëggul yàlla rek jaar nga suñu bu jaxee ni mu gën a bon kon ki dul julli wala du jox julli xaqam lu ko dal musiba lañ ko tuddee wala mbugal kii julli du jéem a topp li nga xam lépp lu ko dal natt lañ ko tuddee natt bu la dalee yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne bi nga xam ne ne man yaamal su an yujida bihi wàcc na ku jëf lu ñaaw rek ñu koy def xam lu mu mën a doon ginnaaw ba ko ne yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu dem mu ne ko ndax doo feebar ndax doo ñàkk ndax doo sonn xamal ko ne yooyu yëpp lu ci nekk tiyaaba ji ci jeex la yoo xam ne bu ñëwee même bu ñu la feebar ñu la def lépp lépp lépp lépp ci lu ko ne loolee bu ñëwee dana ko faj ba ëpp ba dee ci kooku mooy ci gëm di rek di ko lislaam sant waaye ki nga xam ne di ko lislaam sant jëf ko moom yooye bakkaaram yooyu doon gën gën ko jëf daañu ko taxawal mbugal ko ko te la ko daloon itam du du far du far ay ñaaw itam day yokk ay bakkaaram ba noppi naqari xoram ba pare tax du sant yàlla mukk day mere yàlla kon gaaf bi yaakaar naa ne ko féetewoo mooy ci bañ a jàpp te mën a jàpp bañ a julli te mën a julli kooku boo féetewoo gaaf waaye ki nga xam ne day jàpp di julli kooku lan lay am suñu borom day barkeel ak dundam barkeel ay cëram bu dee xale ndax jàmm xale dafay nekk sax jàmm mag ndax jàmm xale coobare wu rek la lépp naafile la bu dee xale boo xam ne bii nekk du mu kàlla li mu def lépp naafile la naafile bu fekkee def na ko ñu mel ne ci magal farataam def ko nu mu ko war a defee ba dara mën ko def muy naafile maanaam muy jaamu jaamu yoo xam ne coobare la ngir bëgg yàlla ki nga xam ne nag war a jullee war a war a bi ko tax mu ko def noonu la mel kon lu am am solo la mag a magee ndax ki nga xam ne nag mu kàllam la te julli na tisbaar ba noppi di ci teg ñeenti raka julli tisbaaram bi lu ko waroon la mën naa am ci man lu ko doon donte ca teewlu ga la dañuy xotti ci naafile yi mottalee ko ba farata nag balay sunna a ñëw wala ndonam na farata nag ba noppi kon farata bi bi ci man day jël ci naafile mottalee ko ba mat la ca def na day moom kon ba tey ko ci dara war a bul te muy jaamu yàlla sanee na ko gañee na ko ko ba tey ah ndax daf lay wër ne moom kon nit ki nga xam ne xalaat na ne julli mënewu ko dëgg dëgg dëgg nañ ko bëggee war nañ bari ay naafilaam naafila ci julli naafila ci koor naafila ci saxe naafila ci wax lu baax naafila ci yéewaloo diggante ñaari ñu wóoroo wala ñu jubóo di ko wala ñoo xam ne ñii dañoo réeroo ci lu néew ñu fexe ba dindi yi dajale leen dañoo ci kenn ku nekk am sa morom am na lépp te wante daan rek kon xale bi nga xam ne mu ngi jaamu yàlla xale bi jaamul yàlla ndax su dee loolu jaa gaaf daa ñu taxaw taxawaay boo xam ne ci jaamu loolu yàlla dana ko dëkk dëkk boo xam ne bii dëkk ko gën a mën a te dana ko ñee ñee boo xam ne ñee ko gën a mën a te ki nga xam ne moo doon jaamu yàlla dana sant yàlla sant yàlla boo xam ne xelam du mën a xalaat ne sant bi ko gën a féete kaw am na kon ñaar ñooñu seen gënante loolu dañu sëkk rek mën na foofu nag yeneen laaj yooyu li nga xam naan ñu bon ñëpp benn lañu ñoo ànd duñu dañuy yëgoo wala ñoo niroo jëf ba tax nag dañoo mel ne ak ñoo raway xare kon ñu baax ñëpp noonu lañu waroon def nag te defuñu ko ñu bon ñëpp dañuy ëpp doole ñi nga xam ne nekk ñu ci yoon ñoo ëpp doole ndax ñoom gannaaw ñi gën a bari la te ñi gën a bari suñu féete kenn ku féete dañ naan yow bokkuloo ci nit ñi boo ñàkkee bopp wala nga weex bopp wala nga daaw complexe ñu ne la yow bokkuloo ci nit da nga tardé ana foo nekkoon nangam lii nangam lii dafa aaya lii ñëpp di ko def lii nangam nangam te fekk na dara ci tamit yàlla moom la mu waxoon jëm moom la wax tey bi ñu ne waaw jigéen jox la ko góor loolu lu muy wàññi xanaa loolu moo suñu ku ci ku ci mooy saay saay wala ko ci xam ne bii du jëkkale fenn loolu day dara lan la joxante loxo ñaari jigéen sax aada bi wala yoo xam ne bii dañ ko sopp l'islam xamu ko l'islam xamu ko bëgg ko góor ak jigéen l'islam daf leen a jàpp leen jàppale boole wu leen dugg ak dañu aj aj boole yu wër yoo xam ne kenn kenn te daroo ñu def ndax benn béréb boo xam ne bii rek ñi ak ñëpp ci àdduna xam ne ay millions lañu dajabal ñu wax daroo ñu def ak daroo ak su jeexul maxduraat ak daroo ak su jeexul maxduraat waaye yàlla ci faral ne la ahadun aghyara min Allah amul kenn ku gën a fiir suñu borom tabaraka wa taala amul kenn ku gën a fiir suñu borom suñu borom moo gën a fiir kon bindee yëpp waaw ki nga xam ne sax muy wax ngay dégg baatam mu neex la tere nañ ko nañ koy joxe loxo def nañ ko nag aada yoo xam ne yëpp dañ ko def léeg-léeg sax ñi nga xam ne sax xëy na bañ nañ dañoo xaw a am ci tamit maanaam kersa daañu leen ko def ñu nangu waaye di jaaduñ ci yoon te yàlla tere na ko bàkkaar góor ak yéen duñu dañu dara suñu war a sore dañu bokk jotaay bu dul faj armante moom war ñu bokk jotaay wala ñoo laalante wala ñu tëmbal tamit waxtaan yàlla ko tere yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a maam ci mbindee bi moo gën a maam ci mbindee bi moo jàngale maam lu moom kenn maam xam nga kenn ko nan la def yow fat makka yow fat makka bi nga xam ne jëm nañ ba conquérir makka yonente bi sallam ni ñu ko génnee woon makka moom ak saxaaba yi bi ñu dellu am doole ba ubbi makka moom ko bi mu toogee ci def saxaaba yi waa makka yi ñëw ñoom ñi tuub woon gàddaay bi woon ñu toog Makka nekk ca lañ nekkoon ba ñu dugg islam ba mu ñëw fekk leen ci ubbi dëkk bi moom ko nga xam ne ay jaam lañ lay ay jaam lañ nan la doon wax ak jigéen ñi wala dëkk maanaam ñëpp ndax dara wala li muy wax Hind man Abu Sufyaan tubaab ba yàlla nag bi daa jaata mun naa bi bàyyi am ala naa ci bi laa seen wala yàq wala yàq nii nag wala yàq nii xawla doon wala yàq nii seen yëpp dañu bay ci wala nii wala yàq nag ci xaw xawla yàq nii parce que loolu la la yow yow ñu la ko wax boo xamee ne ñu gëm ñu jigéen ñëw nañu di jaayante yow maanaam dugg ci islam ñu jaayante yow ci kaw duñu boole ko yàlla dara seen seen yi ñu doon jàmm ñett téeméeri xeet am ñu toog xam ne dugal yaa ko uga maanaam yu gëpp nañ ko xam lépp bu boole yàlla xam loolu ñu jàngee ala naa ci crédit seen wala ci xana bi nga xamee ne yàlla ci wax na ma bind mu ko waaw yépp ëllëg ngeen ko bon ngeen ko jëlee ngeen ko fi tere ngeen ëpp ngeen doole sama ngeen ngeen ñu jàng bi yàlla mu ne ko bu ngeen sàcc mu ne ndax bon dana sàcc léegi dafa ne ko du ko dee ngeen jaayante man bu leen boole ko yàlla dara bu leen sàcc lu tax man de abu sufyaan rek laay sàcc ndax loolu da xaram na abu sufyaan mooy borom mu ne mu ne ko walaay bi ñu bu leen mooy yàlla loolu ndax gor dana mooy yàlla su jarati gor di daw ci yaram ndax dana mooy yàlla walaay ak nit bu kenn ko tëgg yow bàyyi diine wala ak nga awlaat moom bu leen rey seeni doom ne ko ñu bu ñu rey suñu doom suñu gor rey suñu doom dañ leen yar ba ñu màgg ngeen rey leen ci bakar yéen ñu leen rey dina Ousmane rey dina Omar rey ba jaaxaan yi dara li tubaab bi wax sàgg ni sàgg ni maanaam koo xam ne lu métti rek lay rey dina Omar lu métti bu dalee ci yéen dana dana rey ak saxaar yi sa suñu sàkkee sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mu ngi wax ak li la wala ko wala xool ji yoon ko gannaaw nan mas naa am sax benn xale bu bu rafet bu ñëwee di waxtaan ak yéen wax leen sallallahu alayhi wasallam wax nañ ci wax bari dafa dikkoon ko am lu mu ko xool rawatina jigéen kon bi nga xam ne moom la suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko suñu borom moo gën a fiir ku nekk ca xale jënt góor jigéen jox na dara wax xaaraam na ak la dëgg ay jigéen koy bu baax moom ak da kali da xaaraam na ku ne xam ne ne jigéen xawraam xawraam moo di ñaari loxo yi kaf bu ko waxee bi biir biir biir loxo bi rek waaye lii la lii ak lii kanam moom kon bu solee yére yu gàtt mu def balaa koy am koy rëbb ndax mu ngi génne awraam xaram na xaram na bu ko defee te génnul te kenn dana ko gis bu leer bàyyam wala borom këram xaram na bu génnee nag nga xam ne dëgg yëpp ay dal ci boppam ba pare dina xaram boobu ngi balaa koy am koy rëbb ba ba mu ko suñu bu ko solee rek ñu koy rëbb ba mu ko rëbb lan mooy rëbb mooy yàlla nga fa yéen mën a yàlla yàlla nga fa yéen mën a yàlla loolu musique itam wala mooy dañ cee wax lu bare bare bare bare dañoo ràññale musique di génnee ci baat doomu aadama ak mooy way ak di génnee ci baat luy naaw mooy arab yi wax soxroora wala wala beneen picc bu ñuy wax xud bulbul ak yooyu picc ak li nga xam ne day génnee ci bant mooy soxla yi ñuy yet wala loo xam ne dafa génne ci jamaat bu mu doon rek ñu dem muy dugg lu bari chance bu njëkk bi ñu tuddee ak sama li gën a bari ci foqaaw yàlla ci loolu yëpp araam na xaw ñu ci gën a bari mu def ay xaaj ci li ñu tuddee mucc mooy mucc xaar ay xaaj yoo xam ne ulama yi bari nañ ci ay wax am na ci ulama yi ñoo xam ne waaye ñooñu ay falaasifa lañu ndax fuqaha lañu woon boole ci wala déet mel ne que Ibn Sina ak Farabi Farabi daawul musique moo sos jumtuwaay bi nga xam ne ci la tubaab yi jëlee piano ku suñu borom xamaloon aar la te daan dem ba ci diggante ñaari dex ku dex tooboo ci borom wala ku dex tooboo ci dëkk mu liggéey ko dana amee ay bant yu mu daan def ci poosam dana fekk mbooloo mu toog mu def ko tarkib boo xam ne daf koy rabbe ba su ko dee tëgg bu ko neexee ñëpp dañuy ree ree ree ba seen way yi jël bu ko defee mu rocc ko dellu ko sosewaat roofaat ko bu ko tëgg ñëpp di jooy di jooy di jooy ba seen way yi bari bu ko neexee mu rocc ko roofaat ko bu ko tëgg ba ñëpp nelaw mu dem bàyyi nelaw moom fara bi waaye fara bi kan la fara bi ak nit naa yëpp ëppal yi leen takfir bi nga xam ne def na leen takfir maanaam ay commune yéen a leen ci islam maanaam dàq na seen jullit dañ daaw jullit di woor ak yëpp waaye ñëpp ci ay cëral sax lañu woor ñu bari ci ulama yi daloon na ci kaw Ghazali bi nga xam ne gis nañu taalif yi nga xam ne ñoom la taalif Ibn Sina ak Farabi ba gis nañu ci lu war a takfir ba ñu daloon ci kaw waaye bi gëstu bi bare gis nañu ay sawaay yoo xam ne ñoom ñoo ko taalif ulama yëpp d'accord nañ ci ne ku fat loolu dootoo julli dañu dàq kon ba ci Farabi ñu ko tënkoon ñu dem ci lenn ci un tasaw ci ñoom li ñu tuddee sama ak dég déglu lu mel ne musique wala alatu tarab bu mu doon ñoom am nañ seen wayu bopp ak seen feccum bopp ak seen musique bopp musique bopp ñu mën ko assimilé ci xasaay yi ñuy jàng ak way yi ñuy fekkee yàlla bi sallallahu ndax ñoom raq boobu am na ci ulama yu ñu kon ba ne Seydina Daawuda alayhi salaatu wasalaam kaana yarqusu lillahi daana feccal suñu borom baraka taala waaye ba tey bu ñu demee feccu maanaam suufi yoon yi ñu ci yàlla safara ak feccu Daawuda ak feccu ñeneen ñoo xam ne ñii ñu demee ne ñoom lañ dana wuute trop ak musique bi ak fecc bi ndax lu tax ñoom dañoo xamoon yàlla xam koo xam ne nit ku mel ne que Ibnu Farid dafa way diiwaan boo xam ne diggante ak suñu borom rek la ci ni muy yëgee cofeel bi muy sopp suñu borom xam nañ ne caayam nag li ngay yëg ci soo da nga koy way da koy génne ci ay way ibnu farid noonu la ne wax ibnu farid bokk na ci ossaak yi ci ossaak yi nga xam ne seen way yëpp dañuy mel ne kuy fàttaliku jigéen ak di ko tànn te fekk na suñu borom la ñuy waxal fekk na loolu daf leen di tegtal maanaam wisaal bi ñu am ak suñu borom tabaraka wa taala ci ay maqaamaat na ci ay teex ñu mel ne ko kooku ku mel ne que Seydina Ahmad ibn Rafa'i nga xam ne mooy ñeenteelu arkaanu wilaaya bi Ousmane ci topp gi mu topp suñu borom daan topp suñu borom ba xam ba ñu summi yére yi dafa faatu Cheikh Abdou Kadir Jilani dem na ñaari yoon ba sang ko ba war ko ba sang ko ba war ko jullee mu yëngal benn cër wala mu ci ci topp suñu borom barko daala daana toog ba mu yàgg mu jóg topp àll bi di waaxu ba mu yàgg mu yuux ca kaw fu baaxam jëlee naka doon mu daan yuuxoo mu ibn al arabi daan ko def daf bi mu xamee ne mbiram di soog a tàmbali daf daan toog nam suñu borom ba nga xam ne mu mel ne daal liir buy namp daal xam ne mu ngi def ci yaayam kenn xamul ba ni mu koy namee fàttali boo amee xel loolu la koy fàttali ko nga xam ne li mu namm di ko séeri fenn fépp la koy séeri ba day mujj mel ne ku dof du ko xamante fu mu nekk mu ngi dina bi daan toog bu yàgg muy bëri di wax di wax di yàgg muy daw bu yàgg muy yóob ci kaw mu dem ba fekk benn bàmmeel boo xam ne dañ ko gas mu dugg ci biir am ca juróom-ñetti fan soog a génn am ñeneen ñu bare bare bare bare ba Cheikh Ahmad bin Rafay moomu nee na Muhid bin Arabi moomu nee na li ma am ci shawq Ibrahim ci bëgg suñu borom buñ ci pompoon lu toll nii sat ko ci asamaan juróom-ñaar mu ruyal ko suñu borom may na ma kàttan ba mën koo muñ ba mën koo yaare ñooñu seen saraf ak seen yooyu yëpp ay xawaal la xaal lay doon yoo xam ne buñ ca tolloo duñu moomati seen bopp mooy ibnu arabi yi mu bind al futuhat al makkiyya li muy bind al futuhat al makkiyya nee na dara taxul mu bind ko ndax xam na ne ulama yi xamuñu ko xëy na aarifoon yi ñoo koy xam te aarifoon yi jàngal leen ndax al maarifa aarif soxla woowul jege ko ci keneen mën na ko jàng ci xolam ci xolam la koy mën a xamee ci bu defee taxliya ak taxliya ba jeexal jihaad bi nafsi moo mooy xamal boppam yooyu xam-xam yëpp kon soxla bind ko ci keneen kon lu tax mu bind ko duñ koy bind tey ko dafa mel ne ndax lu fees ba nga xam ne bu ñu ko wàññi mu teeb toj nga xam ne bu ko bindu woon day dee wala mu ëpp wala dara dal ko loolu moo tax mu bind bi mu bindee al futuhat makka bi ñu ko bindee makka ñeenti xaaj yu rëy rëy la bi mu dikkee ba misra ñu di ko ko laaj di ko ko laaj fekk fàtte na ko makka benn bi la daf ko bindaat tàmbalee ci bopp bi ba ci genn te ci xooyaat bi téere ta toll na ne alquran juróomi yoon juróomi kamil alquran toll na mu ne yëpp yoon bi ñu moo ko fa tax moom bindal mu bindal ñooñu bu ñu fekkee seenum fecc ak seeni way jëral bi ruumi ak ñeneen ñi nga xam ne ñu demee ñoom ci waa Faris ak sini ñu dema dëgg la fokxaaw yi nga xam ne ay fokxaaw ci fan la ñu xam ne ñoom cëq lañ jàng rek xalaal ak xaram duñu mën a dem mukk ba ànd ak ñoom loolu moo waral ndax duñu leen dégg bokku ñu maanaam longo doon ñu nekk loolu moo waral ñu rey ak xalaat loolu moo waral ñu rey ibnu xasi loolu moo waral ñu rey ibnu sabin loolu moo waral ñu lakk di bari ci téere xasaal yi lakk téere ba mag ibnu arab loolu moo waral ñu génn abu yusuf bistami loolu moo waral toujours foo foo fekk aarifoona billahi ak fuqahaw yi duñu mën a jubóo mukk mukk ba saa taxaw ndax dañoo wute ay dañoo rawante loolu moo waral bi nga xam ne wax ibnu arab yi mu ngi am fukki at ak juróom ñeent ñu ngi ko yéem ci xalaatam ak xam-xamam bu bari maanaam ñaari ba sax l'islam bëgg ñu def ko ñaar ñi ñu dajee ñi daje te mën a de taxiyatul muanasa doxalante ndax bidaa la lu l'islam ciblé ci ñaari ba tax na wax moom jé ko moom moom ñu wet ndax moom ñu soxla sax ko am xaram na xaram ak ko laaj moom moom lu yàlla rëbb la ñu koy def itam noonu dégg nga kon jullit bi wéram mooy musafahat mal musafahat bil yadayni bi jumlatil adab misla dayni te musafahat mooy an tumakkina yumnaka min yumnahu doo ko dindi xatta bada xool li bada dina ci da ngay jox te sa loxo ndeyjoor moom ngay saafoonte loxo ndeyjoor ku lay nuyoo muy góor ngay góor bu fekkee ne ko warmaan la nga jox ko sa ñaari loxo nga saxal ko ci ba mu xamal la li teggin ba la gis ne moom moo bëgg xëcc loxo nga ko xëcc loxo waaye sib nañu nga gaaw a sib sa loxo wa kari wax saa ko ay bind bi salaam tax yaakaar nga musli wa tarkul salaam naka noonu itam dañu sibe nga nuyoo moom rek ne xat bañ wax na nga def nga wax yow bi naa la ci yooyu yëpp lu rafetal ci islam lu bari tiyaaba la lu baax la diggante diggante morom waaye nag roo ko ci ñaari góor sax l'islam bi ñu ko dàq na ko l'islam rawat ñaari góor yi ñu wax ko comme moom nañ ko def rek kon nuyoo mu def li ñuy wax takbiru yadi takbiru yadi mooy fóon loxo fi ngay nuyoo wala nga teg ko ci sa jëf ci jamono yi weesu dégg naa ay nit yoo wax ni doy waar waaye ñàkk dégg ñàkk dégg rek la ñàkk xam ndax takbiru yadi moom imam Malik ci boppam moo ko fit dafa ne man fit naa ko waxul ne yoon fit na ko dafa ne moom ci boppam ndax lu mu ci waxal ko nee na ci fu ñu koy faral a defal dana gis boppam tey bu ñu ko ko defal mu naqay na ko kooku rëy la baaxul ci ci xolu fi ñu koy defal noonu la ko gisee waaye mujtahid yi nekk ci biir mbiram xam nga mujtahid ñaar mujtahid muqayyad ak mujtahid mutlaq mujtahid mutlaq kenn du doon sëriñam ci sharia mooy ku mel ne imam malik imam shafi imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal ak imam lays ibn saad ak ñoom ñi defee noonu ñu jëri na xabar yi ñi nga xam ne ñëpp def nañu seen mbirum bopp am ñu leen topp am na nag mujtahid muqayyad mooy ki nga xam ne yow ak nga ci maqaama mujtahid ci xam-xam waaye yaa ngi tënk ci biir mbirum jiw sàngam jiw sàngam moom nga tënk ci mbirum sax mën ngaa wóoteeg moom ci ay masala ci foo waaye teewul yaa ngi ci biir mbirum rek ibnu qasim ak sax noonu ak ñooñu nekk ci mbirum imam malik ba nekk ba noppi nekk mujtahid ni ibnu taymiya xasaali ak ñooñu ñu ciy nekk ci mbirum ahmad nambal ko nekk ci mbirum shafi noonu ñooñu imam malik ci boppam bi nga xamee ne nee na sib na takbir yéen yi ba noppi weddi xadis yi ci solo yépp mboolem ñi ànd ak moom ci boppam moom ngir te di ay taalibeem d'accord ñu seen moom ñetti ñetti ima ay may ci def ñëpp dagal nañ ko imam ahmadu te bokk na ci ñi gën a watan ko imam ahmadu defal nañ ko ko ndax ba nee na Seydina Omar Abu Ubayda fi Amir ibnu Jarrah defal na ko moom Imam Ahmad moom sàkk na ci nee na na fekk yi koy defal dañuy yaakaar ngëneelam ci ngëneelal l'islam wala ngëneelal bu jëm ci yàlla waaye bu ñu ngëneelal adduna kon ci na nga defal ko buur wala nga defal ko borom alal rek wala nga defal ko koo xam ne ci dafa am dara ci jaay rek kon Imam Ahmad noonu la ko jëlee Imam Abu maa ngi reekat bi di reekat bi moo tax suñu borom ne ko ala kulli am yow ndax ñii kenn ku nekk maqaam ba nga def dafa di ci yow ba lëm ba ëpp sa mu ñu maqam ba tax la nga mën ci melaw nit ci def mën nga yëpp da fekk moo gën koo matal melaw mag ba nga xam ne daf daan waxtaan di ree di tax di wax lu dëgg rek waaye daf daan tax man sax nga sëñ na ay saraw da nga xam ne di dox ba nga mu ne ko nan rawante ñu rawante sëñ na ay saraw ko ñu toog ba nga xam ne am na lu juróom-ñeenti at ñu doxat leen mu ne ko fàttali ñu nan rawante ñu rawante yow ñu ci raw ko mu ne ko raw na mu raw na la leen loolu lépp ak ni mu xam yàlla ak ni mu ko jegee ak ni mu ko ragalee ak ni mu ko bëggee ak ni mu ko mën a joxe xaqam ak ni mu ko mën a warmaale nga xam ne warmaale bi mu warmaale yàlla ci feeñ yi ci borom ci feeñ ci tafata ay bu nekk ak ni mu ko joxe xaqam bu bu ko juróom-ñaar fukki junni yonent ak juróom-ñaar fukki junni si bu ko wóotu woon ci benn fekk yu bët ñu ñu tey ñu ruy ndax màgg ci borom tabaraka taala nga xam ne am na tam ci ci mboolem maqaamaat yi alayhi salaatu wasalaam loolu ak mag boobu mag yi nga xam ne vraiment yow dinañ ci nekk ak bu newoon ci nekk moo gën ñëpp mu nekk yàlla ci lu dul dama xëy képp moo ci am benn wax sëñ naa ci la ne moo gën waaye pour maam yëpp ñëpp na ci moom te li wax tamit ñëpp la loolu wax sëñ naa ci ñëpp dina ko wax sax mën na attale attale attale yooyu waaw am na xaj boo xam ne yàlla ci dara ci xaj mu ne ànd naa ak ñu dem ba ci juróom benn asamaan ñu fekk ñu mel ne garab ñaari tàgg def ci ma toog ci ñuy tàgg sëñ naa ci ñu toog ci tàgg yi arafatu ala naawu ci ma xëy sëñ naa ci xam man rek mu tax mu ne ba mu tuddee laa xam ne jibril moom ko xam-xam ndax dafa xam lu jëm ci ci ñoom moo tax nit yi man xamul booba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ci juróom benn asamaan mu ne booba day fekk na ay ndànd xam-xam yoo xam ne dañu ko nëbb ay magasin yoo xam ne benn bu ci duggoon ci naa ji ñu gën a teey waaye dañu ko nëbb kañ lañ ko dindi ndax ñeenti melaw la am ci guddi boobu ñu nekkee ci kaw suuf amee melaw doomu aadama am na lu mu gis bu ko xamul ci naa ji da koy laaj ji moo ko xamal ñu liggéey ba dem ci asamaan ñeenteel ci mel ni malaaka amee melaw malaaka lu mu gisandoo gis xamal na ko jigéen bi mu demee ba ci ci fekk mu taxaa jéggi juróom-ñaari asamaan yi ak gisatul loo xam ne lii buur na bëtam mu ñu ubbil ko xam-xam bi nga xam ne moom la ko yàlla jagleel dugal ko ci biir ndànd xolam ñu ubbi ca benn bunt jibril xamatul dara ci kanam jibril mënatul dara ci kanam mënatul lenn ci kanam ci jagle boobu la àggee ca xaafiyatu ko xew lépp lu doy waar ak noonu mu mel ak noonu mu mel mu nekk ci biir tën bi nga xam ne mooy aadama suñu borom bindagul aadama ba mu àgg ba mu di taxaw lu dul mi nekk tënu ban suñu borom nëbal ko bu mu fat bu mu tooyalee bant ba mu tooy mu nat ko bàyyi ko ñeent ci guddi moo tax yàlla sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tabaraka wa taala xamara tinata aadama bi yéegi arbaina yawman bi nga xamee ne nag na ko ba mu farax mu tàmbali ko bind àgg bu mel ba mu war a mel mu tuddal ma malaayka yi ci moom malaayka yi iblis bañ ndax ni mu xamee woon yàlla ak ni mu jaamu yàlla lépp ba ñu alak ko loolu lépp di ko alakat loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu teg yërmande ci jullit ñi ak ci waa adduna iblis teg fa fexe ci waa adduna bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xëccee yërmande yàlla ba mu agsi iblis xëcc merom yàlla dugal ko ci jëf ji di xëcc nit ñi di jëmal ba mu àgg kon su keneen man moo tax kon taxaw fii ñu dem di laaj yi su fekkee da nga waxtaan moom du jeex mu nekkoon mu toog kon dem dëkk bi dem xaaj kon waaye doy ñu xam ci ñoom wax laaj ñu laaj jërëjëf ñu sant gërëm rek doon ñaanal yàlla suñu kanam waxtaan nga xam ne am na solo lool kon boobu léegi ñu jublu ci laaj yi laaj ma mbay ak dim saharaat mooy laaj nga xam ne xale bi jigéen boo xam ne nii dafay jaamu yàlla maanaam day jàpp ñu daal léeg-léeg dafa am ñenn ñu wax naan foofu dafa am gaaf ñu laaj ba xam ne ci naan gaaf wala daal dañuy ñenn ñi koy gaaf naan gone war a jaamu yàlla mu ne xale boo xam ne nii xale bu jigéen waaye léegi balaa jigéen gaaf ñu muur ci loxo ci ñu daal ñoom ñenn ñi daal yéen ñu ñu naan gaaf daal ci xale mooy nag loolu am mooy ñaareel bi laaj bi mu ñaareel bi mu ne day laaj almu daal xam ne ñu maanaam góor ak jigéen ñu joxante loxo ñu ci islam la ñetteelu laaj bi mooy yan xool yi ak nit yi ak fet yi ak jarab bu gàtt ak yu xat yi ak xeetal ak yokk garaw waaw kon nag li nga xam ne ah li ma wax rek li ko wax ñëpp nag dañuy wax ak yéen tamit rek jaamu ko ba nga xam ne dafa lay lor ak li lay lay rek ak li nga xam ne moo doon lii waaw. li ma waxoon ne képp ku yàlla defal la xëcc yërmande yàlla ba mu dajee jàmm ci biir xëcc merom yàlla ba mu dajee jàmm bu olamaa yi dee wax baaxut yàlla defal la sama santaane ak melo yoo iblis di dugal ci xel xoli seytaane yi ak seeni xel seytaane dafa am ci nit am ci jinne li alquran waxe ne seyaat na limti wal jinni yuuxi ba'duhum ila ba'din zuxrafal qawli zuxrafal qawli ghururan ma fa'alu tadrum ma yakrun wa inna shayatina la yuuxuuna ila awliyaihim bi jadlikum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun seytaane ñu la waxoon ne fépp ku yonent bi sallallahu alayhi wasallam amee ngëneel lu mag lu mën a xet lu yëpp iblis am fa log bu mag su mën a lor ci yëpp bépp boo xamee ne bi nit ki gëm na ci lu baax seytaane ñaawale ko seytaane day dugg ci xol nit ñi jaar ci lam nit ñi di wax nit ki nekk nag mooy wax fekk seytaane yoo nit ki fekk na boppam waxul seytaane yoo dafa jaxasoo seytaane nag ba xàmmeetul boppam ak seytaane ndax seytaane dugal na ay xalaat ci xolam ba mu gëm ko mu dugal ko ci xelam ba mu xam ko mu ruux ko ba mu wax ko kon seytaane yoo xam nit ki waxul doomu jullit yoo xam ne xam na ne jàpp farata la ndax yomal sa am gannaaw nit mënu la jàpp moo la njëkk gis càpp jullit laab waaratu xabat ba taaratu xabat ba saw bi wala ba dañ wal makan nga xam ne julli yomal sa moom la ñu njëkk a seet ba dañuy seet lenn bu jubee ñu soog a seet jëf yi ci def bu jubul kenn du seet dara dañuy tax lépp sànni ko ci kanam li nga xam ne nag mooy tax nit ki mën a julli te mooy tahaara ñu gaafaral ko ba mu ñaaw ne ko yow day doo dee jàpp da nga ana gaaf gaaf mooy lan sax gaaf defe naa lu bon la mooy ni xëcc lu bon daal yow boo dee julli boo dee jàpp julli xale bu toll ne yow doo am wërsëg wala doo sëy wala da ngay daan dee wala da ngay nekk ñax la mais yëpp nit ñi waxuñu ko seytaane ko ndax seytaane dafay law ci biir yaramu doomu aadama dawa waaye dara tam parce que suma la at yàlla mu lay ay jiim amin xalfihim wa an aymanihim wa an shimaihim wala tajid aktarum wala shakirin wala tajid aktarum shakirina loolu nit ki bu julliwul te bu jàppul te amul ngànt kat julliwul bu jullee juróomi julli julliwul di julli ah kon lan mooy taxaw ñu ne la saax saax mooy lan bañ ci mën gaaf sax bu amoon laa wax gaaf bi ah gaa amul ki am gaaf mooy ki du jàpp borom gaaf bi mooy ki du jàpp ndax lépp lu mu am képp koo xam ne kii jaaruloo ci yoon wi loo am ab taxañ la taxañ mooy lan mooy di la nax di lay xëcc ndànk ndànk ba daane la ci tàmbali boo amee xéewal lu baax xéewal boobu le du ànd ak barke dafay dugal sa xel foof ak puukare ak wane ne nii laa mel ak maa am lii ak maa appli ji ba lor la boo amee lu dal lu la dal lu metti itam du doon mbugal lay doon du doon nattu ndax nattu boo muñee day sippi say bàkkaar di yokk say maqaama di la indil ay tiyaaba lépp lu dal doomu aadama boo xam ne jullit la doon jëge ko jàngam mu xam ne yàllaa ko ko teg su dinañ ko nattu te nattu moom jullit bu ñu ko deful nga jàq boo xam ne dara ci yàlla kon nattu lu baax kooku nag ki nga xam ne nag moom jaaru ci yoon du am nattu loolu dana ko dal nag lu bon dana ko dal ni muy dalee ñeneen waaye lu ko dal moom ci biir nattu mbugal la luy mbugal lan la mu dem nattu mbugal dama wax ne mbugal moom bàkkaar nga ci am te doo ci am tiyaa bu mukk daf la yokk bàkkaar ba noppi ak métit bi li nga ci am wala naqar bi nga ci am wala ñàkk bi nga ci am muy nekk sa xol itam te duñ la ci fay tey daf lay xëcc jëmee ci lu bon ndax benn bu fekkee lu nekk problème da nga dem ba réewal ko dal la maanaam nga daal ne yàlla daal li ma teg naa bu ko defee day loolu day tax doo bëgg yàlla te boo bëgg yàlla rek jaar nga suñu mbir mi pexe yi gën a bon kon ci dul julli wala du jox julli xaqam lu ko dal musiba lañ ko tuddee wala mbugal kii julli du jéem a topp li nga xam lépp lu ko dal nattu lañ ko tuddee nattu bu la dalee yàlla bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne man yaamal su an yi di dëgg yi wàcc na ku jëf lu ñaaw rek ñu koy def am lu mu mën a doon ginnaaw ba ko ne yàlla bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu dem mu ne ma ndax doo feebar ndax doo ñàkk ndax doo sonn xamal ko ne yooyu yëpp lu ci nekk tiyaaba ji ci jeex la yoo xam ne bu ñëwee même bu ñu la feebar nga def lépp lépp lépp lépp ci lu bon loolee bu ñëwee dana ko far ba ëpp ba dee ci kooku mooy ci gëm di def di ko lislaam sang waaye nga xam ne di ko lislaam sang defu ko moom yooye Dakar ne ñu doon gën gën ko jëf daañu ko taxawal mbugal ko ko te la ko daloon itam du du far du far ay ñaaw itam day yokk ay bakkaar ba noppi naqari xolam ba ba pare tax du sant yàlla mukk day mere yàlla kon gaaf bi yaakaar naa ne ko féetewoo mooy ci bañ a jàpp te mën a jàpp bañ a julli fële julli kooku boo féetewoo gaaf waaye ki nga xam ne day jàpp di julli kooku lan lay am suñu borom day barkeel ak dundam barkeel ay cëram bu dee xale ndax jàmm xale dafay nekk sax jàmm mag ndax jàmm xale coobare wu rek la lépp naati la la bu dee xale boo xam ne bii nekk du mu kàlla li mu def lépp naati la la naati la bu fekkee def na ko ñu mel ne ci matal farataam def ko nu mu ko war a defee ba dara mën tuute muy naati la maanaam muy jaamu jaamu yoo xam ne coobare la ñu bëgg yàlla ki nga xam ne nag war a jullee ko war a war a dugg noonu la mel kon lu am am solo la lu mag a mag la ndax ki nga xam ne sax mu kàlla la te julli na tisbaar ba noppi di ci teg ñeenti rakka julli tisbaaram bi lu ko waroon la mën naa am lu ci man lu ko doon donte ca teewlu la dañuy xotti ci naafile yi motalee ko ba farata nag balay sunna añëw wala ndonal na farata nag ba noppi kon farata bi ci man dañuy jël ci naafile motalee ko ba mat la ca def ngay moom kon dafay ko ci dara war a bul te muy jaamu yàlla sanee na ko gañee na ko ko dafay ah tax lay wër ne moom kon nit nga xam ne xalaat na ne julli mën ko dëgg dëgg dëgg nañ ko bëggee war nañ bari ay naafila naafila ci julli naafila ci koor naafila ci saxe naafila ci wax lu baax naafila ci yéewaloo diggante ñaari ñu xuloo wala ñu jubóo di ko wala ñoo xam ne ñii dañoo réeroo ci lu néew ñu fexe ba bind yi dajale leen dañu ci kenn nekk xam sa morom xam na lépp te wante daana rek kon xale bi nga xam ne mu ngi jaamu yàlla xale bi jaamul yàlla ndax su delloo jaa gaaf daa dina ko taxaw taxawaay boo xam ne ci jaamu loolu yàlla dana ko dëcc dëcc boo xam ne bii dëcc ko gërëm na te dana ko ñee ñee boo xam ne ñee ko gërëm na te ki nga xam ne moo doon jaamu yàlla dana sant yàlla sant yàlla boo xam ne xelam du mën a xalaat ne sant bi ko gën a féete kaw am na kon ñaar ñooñu seen gënante loolu doon sëkk rek mën na foofu nag yeneen laaj yooyu li nga xam naan ñu bon ñëpp benn lañ ñoo ànd duñu dañuy yëgoo wala ñoo ñuroo jëf ba tax nag dañoo mel ne ak ñoo raway xale kon ñu baax ñëpp noonu lañu waroon def te gifuñ ko ñu bon ñi dañuy ëpp doole ñi nga xam ne ñëpp ñu ci yoon ñoo ëpp doole ndax ñoom gannaaw ñi gën a bari la te ñi gën a bari suñu féete kenn ku féete dañ naan yow bokkuloo ci nit ñi boo ñàkkee bopp wala nga wees bopp wala nga gaaw a complexé ñu ne la yow bokkuloo ci nit da nga tardé ana kon kon nangam ji nangam lii dafa aaya lii ñëpp di ko def lii da nga wax naan te fekk nag dara du ci nit yàlla moom la waxoon jëm moom la wax tey ci ku ci ku ci mooy saay saay la wala ko xam ne du jéggale fenn loolu day dara lan la joxam jigéen loxo ñaari jigéen sax aada yu bon la yoo xam ne bii dañ koo soppi islam xamu ko islam xamu ko bëgg ko góor ak jigéen l'islam daf leen a teq leen teqale boole leen dugg ak dañ aj te aj ga boole wër yoo xam ne kenn kenn te baroom yi la ndax benn béréb boo xam ne bii rek ñi aj yëpp ci àdduna xam ne ay millions lañ lañu ñu wax baroom la ak baroom ak ak yéexal maxduraat ak baroom ak yéexal maxduraat waaye kenn ci problème ne la ahad aghyara min allah amul kenn gën a fiir suñu borom tabaraka taala amul kenn gën a fiir suñu borom suñu borom moo gën a fiir kon bindee yëpp waaw ki nga xam ne sax muy wax ngay dégg baatam mu neex la tere nañ ko na nga koy joxe lool def nañ ko nag aada yoo xam ne ñëpp dañ ko def léeg-léeg sax ñi nga xam ne sax xëy na bañ nañ dañoo xaw a am ci itam maanaam gerte daañu leen ko def ñu nangu waaye du jaadu du yoon te yàlla tere na ko bàkkaar góor ak jigéen bu ñu jëlee dara suñu war a sore kon ñu bokk jotaay bu dul ko armante man war ñu bokk jotaay war ñoo laalante war ñu tëmbal tamit waxtaan yàlla ko tere yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a maanu ci mbindee bi moo gën a maanu ci mbindee bi moo jàngale maanu bu loolu moom gën a maanu dañ loolu gën dafa tere nan la def yom fat màkka la yom fat màkka bi nga xam ne jëm nañ ba conquérir màkka yonente bi sallallahu ni ñu ko génnee woon màkka moom ak saxaaba yi bi ñu dellu am doole ba ubbi màkka moom ko bi mu toogee ci def saaba bi waa màkka yi ñëw ñoom ñu tuubi woon gàddaay ñu woon ñu toog màkka nekk ca lañ nekkoon ba ne bi ci islam ba mu ñëw fekk leen ci ubbi dëkk bi moom ko nga xam ne ay jàmm lañu lekk ay jàmm nan la doon wax jigéen ñi wala na ñëpp ndax dara la ñu wax hind am na christian suba ba yàlla nag daa jaata mën naa tudd daa yaxna ala naa yusna billah shay'an wala yaqtulu wala yuzina wala yaqtulu awlaadahum wala yaqtulu seen jëfal lu bari lu am wala yaqtulu sima aw suba yaqtulu fatakunu allah allah yow yow ci xalam wax boo xamee ne ñu gëm ñu jigéen ñëw nañu di jaayante yow maanaam dugg ci lislaam ñu jaayante yow ci kaw bu ñu boole ko yàlla dara seen xel yi ñu doon jàmm ñett téeméeri xel am ñu taw xam ne dugal yaa ko ëndaa mën a xëy yëpp nañ ko xam fële bu ñu boolee yàlla xam loolu ñu jàmm teyoo xalaat naa ci bi day seen wala ci nag bi nga xam ne yàlla ci wax na ma lu ñu ko waaw yëpp dagg ngeen ko bon ngeen ko jëlee ngeen ko fi tere ngeen ëpp ngeen doole sama xel génne ngeen ñu jàmm bi yàlla mu ne ko bu ngeen sàcc mu ne ndax kon dana sàcc léegi dafa nekkoon bu ko dee bu ngeen jaayante man bu leen boolee ko yàlla dara bu leen sàcc lu tax man de Abu Sufyaan rek laay sàcc ndax loolu daal xaraam na dañ jàmm loolu mu ne mu ne kon wala ay diino bu leen mooy yàlla mu ne ndax gor dana mooy yàlla su jarati gor di daw ci yaram ndax dana mooy yàlla wala yaa tudd bul kenn yëpp yow bàyyi sa diine wala yàq na awlaad mu ne bu leen rey seeni doom ne ko ñun bu ñu rey suñu doom musuñu koo rey suñu doom dañ leen yar ba ñu màgg ngeen rey leen ci badar yéen ñeneen rey Sidna Ousmane rey Sidna Omar rey ba jaaxaan dara li tubaab di wax kaddu ni kaddu ni maanaam koo xam ne lu métti rek lay ree Sidna Omar lu métti bu dalee ci yéen dana dana ree ba taxaari sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne li muy wax ak lim la xool ko woon nga xool jéem ko gannaaw mel na mës naa am sax benn xale bu góor bu rafet bi mu ñëwee di waxtaan ak yéen wax yéen sallallahu alayhi wa sallam téere wax ni wax bari dafa ko woon gannaaw lu mu ko xool rawat na jigéen kon li nga xam ne moom la suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko suñu borom moo gën a fiir ku nekk jàppale jënd góor jigéen jox ko loo xaraam na ak la dégg ay jigéen bàyyi ko baax yàlla ak yu gàtt fa li gàtt xaraam na ku ne xam ne ne jigéen xawraam xawraam moo di ñaari loxo yi kaf bu ñu ko waxee di di di di loxo rek waaye lii la lii ak lii kanam moom comme bu ko defee ñu gàtt ñu def malaaka yaa ngi koy rëbb ndax ñu génne awraam xaram na xaram na bu ko defee te génnul te kenn dana ko gis du leer bàyyam wala borom këram xaram na bu génnee nag nga xam ne bët yëppay dal ci koom ba pare dina xaram boobu bi malaaka yaa ngi koy rëbb ba borom ko tuuti bu ko falee rek ñu koy rëbb borom ko tuuti lan mooy rëbb mooy yàlla nga defal yéen mën a yàlla yàlla nga defal yéen mën a yàlla loolu musique itam wala mooy dañ cee wax lu bare bare bare bare dañoo ràññale musique di génnee ci baat doomu aadama ak mooy way ak di génnee ci baat luy naaw mooy arab yi wax soxroora wala la beneen picc bi ñuy wax xud bulbul ak yooyu picc ak li nga xam ne day génnee ci bant mooy safara yi ñuy yett wala loo xam ne dafa génne ci jamaat bu mu doon rek ñu dem muy lu dugg lu bari chaque bi nekk bi ñu tuddee ak sama ñu gën a bari ci foqaaw yi la rek ñu yëpp arab na xaw ñu ci gën a bari mu def ay xaaj ci li ñu tuddee musique mooy musique xaal ay xaaj yoo xam ne ulama yi bari nañ ci ay wax am na ci ulama yi yoo xam ne waaye ñooñu ay falaasi lañu ndax fuqaha lañu woon boole ci mën a jël mel ne Ibn Sina ak Farabi Farabi daawul musique moo sos jumtuwaay bi nga xam ne ci la tubaab yi jëlee piano ku suñu borom xamaloon aar la daf daan dem ba ci diggante ñaari def ku def soo ci war wala ku def soo ci géej mu di ko dana amee ay bant yu mu daan def poosam dana fekk mbooloo mu toog mu def ko tarkib boo xam ne daf koy rabbe ba su ko dee tëgg bu ko neexee ñëpp dañuy ree ree ree ba seen wàll yi génn bu ko defee mu rocc ko dellu ko sotewaat roofaat ko di ko tëgg ñëpp di jooy di jooy di jooy ba seen wàll yi bal bu ko neexee mu rocc ko roofaat ko di ko tëgg ba ñëpp nelaw mu dem bàyyi nelaw moom fara bi waaye fara bi kan la fara bi ak nit ñaa yëpp Abdoulaye yi leen takfir bi nga xam ne def na leen takfir maanaam ay commune yéen a leen ci islam maanaam dàq na seen jullit dañ daaw jullit di woor ak yëpp waaye ñëpp ci la ay cëram sax lañu woor ñu bari ci ulama daloon nañ ci kooku Abdoulaye yi bi nga xam ne gis nañu taalif bi nga xam ne ñoom la taalif Ibn Sina ak fara bi ba gis nañu ci lu war a takfir ba ñu daloon ci kaw waaye bi gëstu bi bare gis nañu ay xawaajib yoo xam ne ñoom ñoo ko taalif ulama yëpp d'accord nañ ci ne ku fas loolu dootoo jullit dañu dàq kon ba fara bi ñu ko ñu dem ci lenn ci seen tasaw ci ñoom li ñu